ba léegi di continuer rek. ba sóoru Bakara. ñu nekk sóoratu Bakara ba léegi. ala ah, ko eh, ñaar téeméer aaya ak fukk ak juróom-ñeent. kon tafsiroon tafsir alquran bi. ñoom bi daaka. bi bi bi dem ni. lii dimanche. Dakar eh, eh, mu ne ngi leen a wax ne. kii naa si àlloon na ka yow yéen a ngi tëbi dinañ la laaj. an la xam la dooloon waaw ah, mbiru sàngara dinañ la ko laaj wala marca nañ loto yi ak tamit loto yi dinañ ko laaj onuma doloo quand même de dañ daan naan bu baax de wala ala ñaa kaasala mu ne waaye yàlla dafa dumóoyu loolu anam naa fa moo lee doroon musta wax nit ñi bu leen bu leen naan sàngara da misi naatowe ka doroon waaye julliti yaa fekkoon na nit ñi di naan sangara waaye couran oma bee fa ñoo la mu ne ndax alqouran waxul lépp benn yoon déman ji ñoo la lépp wàccut benn yoon ah dama dama fa dafa wàccee par ndànk ndànk saan da loola kiiti mu ne aate sàngara eh, eh, eh, wala ñu ne mu ne loolu la ñuy laajte nii asi laa ñaati naka lañ koy tëralee Umar uh, bun Khattab mu ne Umar bun Khattab wala ñu la commencé laajte yëfu sangara ako musulmaya mu ne jullitiya anan doloo tita ak sangara daal munul ànd doloo ñan na bala mu ne sangara war nañ koo génnee pour ala boo jaabi loolu mu ne yàlla at tontu boobu lay def nii yasaluna fa day ñu mu ne ñu ngi lay yow yonente bi ana la xam na doloo mbiru sangara wala siramation siration lépp luy mandé dugg ne loolu yëpp mooy mooy a añaamama. mu ne su fekkente ne yamba la. amonkuma. wala drogue la. ak yima. wala ndox bi la. Ah, ak béykat ko lépp loo xam ne dafay mandiloo rek. wala may si waaye nañ loto mu ne ak euh, loto. kodu ka soto je mooy da si am xaalis kodu man soto je wala doo ci am xaalis ah, bima kiidi waaye yëpp benn atte bi la lotori moo mel mu ne lotori lu mu doon ñu moom wi la ci lañ eh, lu mu jar junni la ñun kalabandew mu ne ki nga xamante day naxaate alafara wil tan soto la moom bëgg na mu am si fukki junni naa waa fi wil tan mu ne su ko jaayee fukki junni ata jar la du jar ako ba nga waafi moo ci dem. mu ne waaye su ma ko jaayee benn nit. ay wiltan di. mu jox ma fukki junni. daa solo du ma ko am. ba nga waafi moo ci dem. waaye su ma ko jaayee fukki nit. mbay wiltan di am ah, fukki junni. ah daa wila ci lañ soxla. mu jël bu fekkee. Eh, ñoo ñoo seeroo jiite. mu ne xoolal naxante bi. tapalew jiite mu ne xoolal yëfu tapaleyaa bi. kalbante ak jiite mu xoolal yëfu naxaat. ñoom moom wila ci lañ soxla. lii de junni lay jar. ne baa ci la waafi la. su fekkee ne da jaay benn bi. moo ci lañ. kenn. min na fansa mu yɔrɔ mun na a ka a ka fɛɛrɛ. na ah, a ko dinaa ci am fukki junni. i b'o waa fi nɔ la na la koy jaayee. yàlla n wele kelen fɛn la. mun na lii eh, junni la. ba dɔn n na hara man ma waa eh, ñaar téeméer. wala n ko kɛmɛ. wala ma ne eh, téeméer. ni ko ɲin fɛlɛ kɛmɛ la. mun na lii suma na la. ñi mɔmɛ n ka hakiliw dɔn. ñi mɔmɛ nit ki nga xamante lekk naa xelam. soo baa fɛ la ñun ne daa di yàlla. kooku dafay ne ah, neex na de. ante ah, ngeen ka mu ne lii a ko nga loto rek mu ne ah, léegi nañ ko eh, kii lë ñu lëkkale ko. a kéemoo di mu ne nga ko sa téeméer. amaa di la mu ne jox la ko. Ah, a moo kéema bi ala kéemoo xaar boo ñëpp jox ko seen junni. a a mu ne su léegi moom. itam nga foog ne yow yaa ngay ja jënd eh, yëfu junni eh, téeméer nga koy jëndee. foo ko numéro la. na ñu ne numéro la. foo wala ñu ne carte la. mɔgɔ kelen wala ñu ne kenn adolo kɛ mɔgɔ yani téeméer wala bɛ kaɲɛ mooy gañe ñu nomba kan ñu euh, nomba tel kɛmɛnen tan ni kelen ni kelen mu ne maanaam ñu ne euh, téeméer ak fukk benn ni mɛn bɛn dɔw fɛ kenn ku daje loolu wala kaɲɛ kooku moo gañe moom moom b'a fila alima nga bɛn ah ku nekk na di wax ne yàlla naa ko daj nomba kelen kelen ite bɔdɔ yow benn nomba nga jóge eh, ite boy dal ñu ne yow euh, daanu nga itaar moom yow dem nga. bee booy la kew. ñoom ñëpp daanu nañ. fo moo kelen. kenn rek. wala kañe da moo gañe. ala kemu. ab si téeméer. ay wele kelen sɔrɔ ji. mu jël mu jël junne. a deme yaa ala alter. moom mu teg seen. ala wele kelen. moom mu junne ay wele tan sɔrɔ ji. moom mu am si fu. masa ña nañu mu tal. mu ne nguur wax dafa war a. mu ma bandi bandi dëgg la kii moom bandi dëgg la. waaw loi la dañ loto mu ne moom xamul lan moo tax loi yi nangu loto bi de. ba bandi fasal la. yaa ngay jàppale bandi yi de. ba marché oti ñaata yaa ngay yàq marché bi de. marché ñaan nañu motal. mu ne nguur war na tee kii de. yow bandi baale mu ne kii bandi bu rëy la. annonciation ak tamit drogue bi. ay drogue ko mu jaay drogue bi. code jaww la. ci xaalis bu rëy. ate daan maa lay dama de. moom rek moo moo lekk xaalis. waaw doole courant la sum. waaye ñoo moom dañ jël drogue ñu xëcc ko. dinañ yee drogue ak courant. kii kii moom bi mu drogue rek mu daal di. ala ala xoolal moom melokaanam mu musan ni wagirla kala ɓande o moye ki jaye ni a tefiraɓe koɗo jama ɗuma ka mom mugini di am ala aɓe bun jawlo ka muge sampa e ah, ah, di a a bunkoɗi ñimmenna mu jox drogue o tiyata o kuŋode kooku bi ëpp na ci boppam o ñama kooku moom dof wolo ci njël benn bi ay ɗo mu rey keneen ay musu ɓoy ka mu daal di réeb ay mu daal di génne yaaji man sa a ñannoo fana mutalla nguur gi na teeko fiera fe waafila ki nga xamante ne moo doon jaay mande bi ni yëfu eh, li mande daldi nii kolon kila a mu ne yonente bi wax leen ne ala kese dal de yàlla daal muus na de alen de kan mu ne ñun ñëpp nañ jàng rek yaa dafa muus a foyo ko yow yonente bi wax leen ne ma be si la fon lotori mu ngi si ñaari mooy lotori bi ak man bi mooy carte ak lotori bi mu ne Bakar mu ngi fa junu euh, bu rëy moo fa nekk mu ne ju Bakar bu fa nekk mu ne euh, beneen jàngin bi mooy Bakar bu bari moo fa nekk yiro bala ni ne dal lorange bu reere mo nekk ci mandi ala ala ala tilen da o mana so na fa fana be mu ne ah njëriñ mo fa de dina se mo ma njëriñ mo fa nekkal nit lotori mu ne loterie. moo fi la gagné ñaari nit ñoo gagné. yooyu la keneen sama soxla. so nga am eh, junni. Eh, yëfu junni bi. et la keneen ci si sa téeméer. et la gagné. yow gagné nga. ñun loolu la welta yële keneen sama. ki teg moom junni bi. ay welta sori. moom mu am si fukki junni. ay daan si ñaata. mu mu raw la fukki yoon. ñoom moo kemoo bee. mu ne eh, téeméer yi. ñëpp a bee perte de nañ. ala kemoo to. seen téeméer. a bee kumboon. ñoom ñëpp. saa la nga balance soogee toora ni nafa. léegi nañ balance léegi njëriñ bi moo ak ak njëriñ loraange bi moo ful moo kime moo kiliŋ mu ne téeméer nit ak kenn nit ñi moo kilome lan fon lan mu ne kenn bu teg bagasam ni moo kiliŋ kañel kenn nit gañe tan kono dina juróom ñeneen fukk ak juróom ñeneen ñoom ñëpp jooy ala ko nga moo fula tud jëloora nga tan kono kono du bàyyi ñaari nit yi ñu ree juróom ñeneen fukk ak juróom ñeneen ñu bàyyi ñoo ñu jooy ne nafa ba jaa tooroo mu fekkante ne njëriñ mu ngi fa kon loraange a fa juróom ñeneen fukk ak juróom ñeenti façon bi yëpp. loolu yëpp loraange la. manaafa min nafaabihi. mu ne su fekkente ne njëriñ mu fa. li naasi moo doon. ni euh, nit yi. waaw ismuhum ay fuloo tooro. fuloo waaye ñoom ñaar seen baakaar. asbar wala war a a rëy de. bala. njëriñ euh, bu fa euh, maanaam loraange bu fa nekk. wala siyaar. loolu moo ëpp. 99% mu ne juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeenti façon la. lii naa nafaat. mu ne daan njëriñ bi. voilà mu ne kon nañ bàyyi lii. ah an fadandi ah bàyyi bàyyiloo ñu de ama ah, fanga an kana waxul ne buñ ko def ay ay xàcc bu kuule laa bala daf ñu daf ñu bàyyi eh, xalaatloo ci mbir bi. xàcc ba gën bala. pour suñu xel bi ci lu mu nekkul. loolu ko du ko alaatu. ñeneen ne ah nañ ko bàyyi. alaala fee yaa dama dama bu la. yàlla dafa bugg daal ñun ndànka ñu bàyyi ko. yaa pour ñu bàyyi ko. doolu yaa doolu yaa commencé ñoon ñu bàyyi. ba man ca kaa xaraam. waaye ñu ne dafa araam. ba wala bële loolu mooy mujjee. waaye si allo nag bee ñu ne. mu ne dinañ lan laaj si semaine dapan loo xamante ne ci loolu lañ war a dépassé maaga jella mum ñaata lañ nakko ɗo to si sa alal yon sukaaɓe men kira dafa aɗomol sora lu mu war a may nisi walla jago walla si zakat bi ko lañ kira foy go yow yonente wax leen ne al afwa to mooy eh, eh, mujj mujj bi waɗi mooy desit bi mi sima folo mu ne si eh, commencement islam madina Madina. code bi ci moomu mooy xaalis du des ci loxo kenn. saa bool la ñoo kanoo. mu ne saxaabay seen soppuwante. denda denda ñoo la jiboo. ñoom bokk nañ poos e denda magasin bokk nañ eh, magasin min fanoo kirate so bërsatee ite e lamaanoo bi lamaan sa magasin tibb fa sa ceeb misi mi fon la mu de waaw yëfu jullit la de misi moo bele tama jullit yëpp a ko bi nga xamante ne moom amul ceeb tey ñu la doon te kilo lay lekk lay maa sa saaku ceeb bi danaa kilo bi la dafay ñëw mu tar dafa daa taw dante maa ne bon te mu ne amul benn eh, bunt bu nekk si magasin bi ite e laa soto ndax yow yaa ko am de day damaata waaye yow rek moom loo ko damaata doon yow jël doo ko lekk. ji boo fanaa be ten ni. mu ne sa poche bi tamit noonu la. ni benn sali fanaa doon. suñu àggee daje si. jaamaa saloo doon. si jumaa ji. ñi man kon doon so. mu kii da amul añ. ma so. kii amul reer. a baa boo ko. dafay ñëw dugal loxoom si sa poche. a man ke du sàcc de. naa naa ye keme fa fekkee ñaar téeméer. ala suula mu kemel. moom ah, soxlaam téeméer. aywa taa ye keme mu doon loolu lay jël mu delloo fa téeméer. E baloo daa ñoom nuñ leen dundee. moom mooy même état bi boloo bojjee. nit ku ne soo génnee sa dundu tey. desit bi loolu joxe loolu neen sama ñim fana kete mu ne su ëllëg tamit ngi kelen def bu lo tar na ñoko rek ñom seen loxo ni la nekké jaxaso seen biir yes allah na be yes allah na be ñu nañ mu ne dinañ la laaj ne ma dañu fukk na be jël ci lan lañ wara joxé ko la afa fo to man wax la na dal desit bi dal joxé lo man kon di sor lolu de amul apo ka dara ga tan mu ne te ni la de yu bayinu la la ka yalla di leral la ko atale di len leral la aya dala aya yeb di len leral la la kon ton datul aman na ci yeen tata fakana fal fi ni den nekk nit yi xalaat mu ne

dajale ñaari aaya sootu Bakara mu ne sootu Bakara aaya keme fula ñaar uh, téeméeri aaya aaya tonse uh, juróom ñett fukki wala nin kiila ba karanna mooy yonente bi su koy jàng aka nir yijee uh, fu mu dee nokkee keme fula ñaar téeméer ak juróom ñett ko anola safiwaati fololu mu ne biñ doon binda alquran man nombal donde ni numéro de boobu dugal ñu numéro yi de i baaɗo nañaade ko aayola mo fu ngeen xamee ne aaya la mbiren kiilaaɓe jàng karanna yonente bi doon jàng a ah, nir ji jàng fiilan Uh, okay. e ka lowol fof lañ ɓa tumanɗo kila sa ni jiijan yen sa yonente mun nanno keefi watuɗo aɓe kala namani jiije waw fekkatami yen sa muy jangatami ɗonnoke ola kaño soba wulu wa mota moy lol moɗe isi hej ni a jewlo ani jii mone sogise kero nunnoke toon mbiya ni yolle lafita faala wala na ni jii hejna kero nokkemɓe moɓugono ne jii ɓa xëccoo ci loolu si jeete ayoon ni ñenn ko def aaya da jeete ayoon ko fa ba say kana jibe koro fiña doola waaye dafa am beneen ko dee xoole yaa ñe ayol men ben bulo jam gisuloo aaya yi ñu am fii si suñu loxo kene to tan woo maanaam ñaar téeméer ak fukk wa antum la ta'lamun mu ne foofu noo keeka eh, même baakan mu ne li نجينا أجي أنجي أجو والله غفور رحيم والله غفور رحيم أنجي أجو نندو لعلكم تتفكرون لعلكم تتفكرون نمين جيجام من سونو في الفيل فوق بالأجل ولا آخرة نبغى دمبو ولا آخرة نجي نعلب ولا نجو من سبوبا نوكي كايد في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة أنا نجي نعلب فدا kay ni da utena de wa na tafakkaru la ni jina ni mulunda mune tafakkaru no kayom ak bi ni munuro ye ni maralo ni tefa uh, uh, uh, numero baro la ni dan bla way wax bi pour fu mu wara em wala akhira wala akhira kuma dan bla mo la wax bi em way salonaka be ni len kala way naka dinañ la laaj an la tama alati la ko lu yatimi moy bi dinañ la laaj sen mbir dinol men faara moy eh, eh, fañol faara moy xale yi nga xamne sen baye de nañ e fontu ye donc yóbbaale alal ci seen. kan bee nii la fóon mu dala ñaari. naka lañ téye jirim yooyu ak seen alal. an do aya dole di ko eh, a lekk safara. fo mbaa la téye eh, la carré la la sim kilo loola fay na ba. mu ne ndax ñun dañuy jël eh, jirim yi ñu la laara da ma kanee la kalee la ni mu dem rek moom moo fa war a fanaan ala bon kono moo kana du jaadam ma moom néega moom rek moo fa war a dugg hanna dindi yaata su fekkente ne sa xale la ala kooro moo kana kooree nono mi. yekkam kenn du naan bi moom rek baatel la fem ndax moom moo ko moom hanna la ko ma kilena ben na koore woto donte sa moom benn gile ma moo nekk si suñu fom bera ko mol kele fayen na ba ñoom dañuy jël seen gile bi ñu defal lan ko bu seen bopp ah o do ko la la mu ne loolu su bu baax dina jafe naa ñana la ten mu ne su fekkee nii lañ ko defee ale ti moo si fa moo faa si fa ne mu ne nit ki baayam dina dee. daa kalafano la moom. duñ ko mun a dénk kenn. ko daal. dañuy naan ah kon pour téye lan jafe-jafe. o ye sànni yooyu dinañ la laaj. andira damaɗe to moon mbiru jirini kolum kila foye ko yew yonente bi wax lande islahum kam beti andira ke pour di baa pour di defar lahum yen defaral konoto kuya muta leen si jàppin kana la e la naafuloo konoto kuya ɗomo jël seen alal ko lekk bu kana kana feeroto ɗomo bul ko lekke ci euh, lekk di muus muus di ko lekk janni ɓe keeɓaala wala ñuy mi e jakasi kuwo ɓeeɗo jaxasoo ñoom ci mbir. allié mu ngeen jàpp leen jàpp. allié la ko doon mu ngeen jàpp seen alal bi. waaye ntu xaali tuuxu n'allié ñaami ñooyaa. waaye su ngeen jirim yi. ko lam. ah mbokk lañ de. parce que ko lam. ndax sa mag la. ko lam. sa ani ah, mu ko ko bu sa yi ay mag a rakkal. famille kilon la mu. mu la. al ni ye den ala dumor booloo la. jaxasoo ñoom ngeen. al ni den la alal. rafet ngeen téye ñoom seen bopp téye bu rafet. wallaahu ala. wallaahu yàlla. ala yàlla telloon mu ne yàlla de moo moo xam. ala mufsida ci ñaar laa la. moom de xam ci na ko. menal musiba dar laa. waaw ci ñi nga ne ñoo dee defar. men kaa ci ñaar. ci defar ci yàq. men kaa bete ànd. ak ku koy defar. ala yoo boñoo doon. yàlla moom ràññee na lu. lii fanaa fan yoo doon te yow sa bopp tamit ràññee na. daal lii de ne ala la fi mu ne yàlla de su euh, su ko asal bata sànni. ah moom dina leen sonal. ana ni ko yàlla daa fay. mu ne ndax yow soo jëlee jërëm yi nga ne danga koy bàyyi ci boppam. wàllu toora la lool def leen di sonal de. inna la ala. ndax yàlla de. Aziz Nkorba Kulama. moom du du kii du ko tere. ak kéema kaa bee kaa moom yàlla dafay def lépp nu mu waree. kéema fila nu mu. mu ne ñaar téeméer ak ñaar fukk. ko tam. mu ne beneen aya. wonuma misima folo mu ne booba euh, commencement di jullit yi misima nan ka fo mooy diine bi ak yéefar yi e ka dañ daan seelante bari saani mu waaye léegi e ka kanaaki mu ne bu bu mu am kana kaafiro fo bul bul seey ak euh, yéefar kana e donde kaafiro bul jox sa euh, doom yéefar keloole ɓe sa mu ne xeex lañ nekk fu mu nekk ɓita yaa kana duwa de mu ne bu leen goroyaa bu mu dugg wala tan ki hoal kana futondiri ke mu ne al mushrikaat mi kaafir muso al kana futu maanaam bu leen takk jigéen bu yéefar bu leen ko takk wala tankihul mushrikaat al kana kaafir muso futu mu ne jigéen ñi nga xamante ne ñoom mushrik lañ bu leen leen takk hatta yu'minna fani son dam dere rek ñoom ñu nangu diine bi kana kaafir futu mu ne yéefar daal bu ko takk sooninke bu ko eh, maanaam sooninke naamantu koo xamante ne tuubaangul wala amatuñ jom muso fa mu ne waaye jàmm jaam jaam bu jigéen bu wala deforool mu ne bu njëkk ba dañ daan xeeb yooyu mu'minatun maadama noom noom misima mu ne su fekkente ne jàmbu jigéen te moom euh, jullit la xayrun yoo futu wala betiyaat nga seya kooku moo gën mais mushrikatin sooninke musa bu fekk nag yaa ngi taka euh, bu jigéen wala ajabatu ko xam ne wala ñu ñaaye ñaaw su fekkente ne sax kooku rafetaayam bi sax daf la yéemu anaa la alxaloo naa la place wala moom palaasam ak alalam moo la yéemu anaa la sonal ak am ama moo la yéemu wala xanaa ndax maal misil moom mu ne suñ suñ diggante sax ñun julliti soo a ñuy ñaar bul xool jigéen euh, jullit ci rafetaayam ala sotola wala ci am amam ala palaasol wala ci palaasam ala famille wala famille a ñinan ka ajiwe a jikoo waaye yow soo koy takk daal xool ko si jikko ana misime be misina a ah, su dee sa jullit day takk jullit jikamaa futu a ah, na nga jàpp ah, si jikko andi naa be siira ndax da ngay toog ak moom nen ka foo bee walen ka waaw mu ne su la mbooloo di utsi nen na paro ñi ñaar a a xool kii a rafet li mu loolu. e ko wala kan. kooku ngay bugg de. nii loo dee kon. waaye suñ ñëwee ba tiim la. même mu loo ñii ñaar nga xamante ne moom a jekk kanam. e ko wala kan. kooku ngay ba nii si dee. waaye suñ toog ak yow. mais jikko ñii ñaar nga xamante ne moom la jikko ji baax. e ko wala sax moom rafetaayam bi daf la yéemu. yaa yaa naa boo ñaaw. mu ne su fekkee ne noonu la mel. di musulu laal. ah ñii jur doom yi jigéen. ah bee baa denw kulu la. ñoom dinañ yar seen doom. pour sama kana soxla. pour ëllëg si biir ñu bañ a ñàkk am jëkkër. voilà tontu almushrikina kana kaafiri coolu futun bi. mu ne bu leen seeloo euh, góor yi nga xamante ne ay yéefar lañ. hatta yu mel nu yu mel nu fa jënd bee sonn. lu dul rek ñu dem ba nekk ñoo xamante ne dañ gëm yàlla. tubaabu kéemaan tuubi. mu ne tubaab euh, bu góor tuubul. kana Sénégal di musoo di. bul jël Sénégal Sénégal doom bu jigéenu Sénégal nga ko koy jox de. maadaama tey waaw maadaama du doon nekkul jullit. hanin da maale mu ne dent sax ñun ñunu nen julliti. ñu man daal di ka ñu musulman kulubali wa man daal di. bi jullit bii nii moom amul benn jikko ju rafet te nit ku bon la. bu ko jox sa doom de. naaka doole doole noonu. mu ne su dee day naan sangara. ah naaka daanu. ah ñoom ñaar mun nañ koo naan. naakee doon. su dee def dee fecc. ah doom bi daa doon daal. ah mun na dem ak sa doom bi. fecc kaay te eh, góor moo gën a ëpp doole jabar. kana diineen temps foofu. mu ne bul takk koo xamante ne amul diine. wala abdu jonto. wala mu ne jaam bu góor. moom ne messina jonto. jaam boo xamante ne moom ku gëm la diine. xayru wala fut wala futu ndof. kooku noonu moo gën. mais mushrik kaafir ci koo xamante ne ne mom yéefar la. law aajo nga xamna la xamna la koo ye ñaar su fekkente ne sax koku tamit mbiram daf la yéemu. alamansara. maanaam nguur yaam. ala kodo. mom alalam. ala mala ya ak tamit ndax dafa jóge olo. ala jula ya wala mom businessman amul amul la ñi wala mom rafetayam rafetaayam. maadama diin aman diin. waye fek mom amul diin dem kan bu ko jox sa do ya nem bi de yaa loola ten. mu ne su fekkente ne goro ya ni lañ ko defee. mo moo bébé kulu mu ne ñun ñëpp nañ yaru. ana ni kere jan kamba na kulula so fi nekké waxam waxambaane boo xamante ne ku réew la. il est fabata dem musu ñu noonu la. Ah, di nga sonal sa baay pour ut jabar. mooy tey don kenn du la jox seen doom. yaa ngi ñu mbedd ajibol bi daan di. mu la lool. ndax dem pour samp famille. albi mel na wulu la. te ñi ngeen di jur. isaajee si bëri. su ko defee ñooñu baax. kulóor si sonn. seen ñu ngi leen di. mu baax yaayam baayam baax na. daal yaayam baax na. la famille bi daal seen famille bi daal la. kooku dina baax. ak kulóor bi sonn. mu ne su boobaa pour yaa. sot waaye su ngeen ko defut nii ulaayka ñin doolu de mu ne ñii dee yadoone ka moolu kili ah dañ dee oo nit yi la naar dimbala kan ah, ci safara de kuru yàlla kan maanaam si lu bon de dimba baaroola kan ah, maanaam si jikko yee demusoo dee kaafira tuube baloola nga jox sa doom yéefar bu tuubut walla mi fiime ɗaji kan tan wala walla jullit boo xamante ne amul siko bu rafet ñafulole telle ɗum mel doom boobu noonu moom la ñuy njëkk a commencé yàq sagoy bina men wulo a ñi nga xamante ne moom la ñuy ñëw jur a bamankaan ndax yaayam baaxul a famankaan baayam baaxul donc moo si laa ah, mu doom boobu kay moom kenn du yaakaar si kooku o ka famille ti mu ne loolu mooy yàq famille dama yeen jamono kutooje mu ne gisloo jamono bu bees dene bi sëy daal amul contrôle a soxna doo ah tey lu muy lekk lu muy liggéey ban place la ne. Fabé 3 ndax Europe la ne. ñoom daal suñ la gisee si buntu yooyu. si lañ lay jox seen doom. suñ la gisee si buntu yooyu. duñ la jox seen doom. gisuloo sey barkewut. mu ne ñii nag. dañuy oo nit yi. Eh, yóbbu leen si safara. yàlla moom. dafay oo nit yi. pour yóbbu leen si àjjana. ndax eh, sey moom payam. loolu àjjana rek. ah ak tamit njéggalu baakaar. izini ala la dégg. waaw ah, ci ndimbalu yàlla. o yu bañ na ka koy ndiwa. yàlla mu ne mu ngi leen leeralal. ah yaa ta la kaaw ko. maanaam kaaw teefam yëpp. kuran eh, bi daf leen koy leeralal. den koy leeralal nit la allah tuma dɔn moo di. mun a amaan na nit yi. ya dafa kan si. su ko defee ñu doon ay xalaat kat. dama fila mu wane mu ne ñaar téeméer ñaar fukk ak benn. ba sori bakara. ñu ngi sorootu bakara. weesu alors nag la laajte ba léegi. tukun. ba léegi dinañ la laaj. waaw jigéen yi nga xamante dañ dee nekk nekk si xaydu période maanaam si période bi yaa yaa sababoolu maanaam euh, sabab boobu jigéen bi pour mu nekk si aada sabab bi lan la mu ne mbaa xawa biyaane adama bi arjana mu ne bi mu nekkee euh, adama si ajjana bi moom moo njëkk a lekk garab bi ah, mu wan na ko ah, mu ne adama waaw amul benn problème yow tamit lekk ko ah, man maa ngi nii lekk naa ko adama dara jotuma adama tamit lekk. ala ko adama lekk euh, bi ada yàlla wax adama ne. lan moo tax nga lekk garab bi. ak a mu ne ko xawa moo tax. ak ko xawa. mu ne xawa. mbaa bu sala. dinaa ko dóor. anaa di muso. moog doomam yi jigéen. yaa ne dinaa ba ban. balaa aduna bi di tas. yaa yaa ñoom euh, euh, ñaari yar laa leen. bu benn yar bi a denmuso min dɔn moom eh, eh, jànq eh, maanaam doomam bu jigéen bu mag jaani bɛ kɔrɔ la balaa ñuy màgget kari kar weer bu ne yara bɛ dina gis deret a fɔlɔ mujjant la wala laban wala mujjant mujjant la wala k'a jɛ fɔlɔ ni laban waaw wala nga koy gis si njëlbeen bi ak mujjant la kari o mu ne weer bu ne dinañ gis ima ye k'a fɔ aada yɔrɔ moo nit ñi di ko wax ne deretu aada koorama sa mu ne feebar taxul de jéema baram mu ne amul gaañ-gaañ bu fan kari sar waaye weer bu ne la mu si yaar eh, ñoom seen jigéen yaar eh, yo dara dina fa génn eh, konoma o konoma mu ne biir gu ne ni musoɓe konota jigéen suy jël ëmb bata coono naa ba wulwula su koy jur ay lef la faam day mel ne kuy bugg walen tim kone mu ne mooy jafe-jafe bo laala hawadimo ɓe mu ne dinaa teg loolu ci kaw doomu aadama bi janne o busoɗo mu ne loolu yar boobu laaj yow anil mahide yërsi yalo ci mbiru ay deretu aada bi kolon kila farko yow yonente bi wax leen ne kuwa yeloñe ah deret boobu de ala ko solon ah, mu ne leen eh, kii la day eh, eh, tilim la amansena ah, ah setul waana kalifin mu ne moo tax ngeen di génn wala njara kendaal mooy mooy mu yaram de musol kala sɔn. mu ne jigéen ñi nañuy nangu. yaloo ka bɔ deret boobu di génn. kari o kari. ma weer bu ne. n'a a bɔ la. mu ne su génnul. yaa tɔ la a la. ah mu ne ni ko tuddee mooy loraange la de. fɛn dantan bɛ mɔ la. mu am na yenn mbir yoo xam ne. non man b'a la. su la génnul. o b'a tɔɔrɔ la. mu ne dina lor. walima aadɔ la. mu ne loolu aada la moom. n'a ye domoroo kɛ. mu ne soo lekkee ba noppi. a t'a kama. da nga war a dem douche. ni wan tɛ. su nekkul loolu. min bɛ tiɲɛ la kɔnɔ. élexibi lu yàq sa biir. a b'a tɔɔrɔ. Ah, dina la lor. e sumunake mu ne soo soo sawee ayte sumnaa jiyomi soo naanee ndox ayte sumna da nga war a dem saw naabi kam sumunake mu ne soo nekkul di saw a baatoorala mun na la lor de courant bee jawmaa baa mu ne feebar yi ëpp si feebar yi kono dia mooy sa biir wow doo dee dem douche sumnaa suko eh, maanaam sa saw bi fatt doo mun a saw to ala boobaleya mu ne kon ñàkk a génn yooyu yëpp toorolon loolu loraange la ani ani yeleen ak deret bii nii a génnam toorolo loolu tamit loraange la ak tamit eh, spam mooy eh, eh, ndox bi génn si góor. ala boobaliya. mu ne ñàkk a génn bi. tooróoram mu ne loolu tamit loraange la. ka futu wa mu ne nga def sëy. man yoo ka boora. man bi di génn si yow. wala nga mu ne loolu mooy wérgu yaram. naa bi ka boora. mu ne su fekkee ne nekkul di génn. mu ne mu ne loolu du wérgu yaram. a a bɛ lënd mool baloo bala. mu ne mu ngi xàmmee ci nit yi. mel ni futu la mel ma futu. ñi nga xam ne sëy nañ wala ñu sëyul. balool man kii la. xamante ne dañ anen men ka futu a keɓe je a koo xamante ne dafay seyte jëkkëram nekk balol bi ka ñu ne seen yaram sax du doon benn anila sima ak seen wërgu yaram du doon benn ak seen xel bu dal du benn anila ak seen xel bu dal du doon benn a fo azan tororo mu ne kon azan loraange la kosolam te lu tilim la fa naa sori sax. mu ne su loolu amee. E, tajul al salfan jafan. na ngeen sori e, jigéen ñi. am na saa mu sori. kan jigéen ñi na ngeen sori. firma xëy na jërëjëf waaw. gannaaw boo xamante ñu ngi nekk si deret boobu. ni mu soobee yelloo too. mu ne su fekkee ne jigéen bi mu ngi si deret bi. kii woon naa kafu. góor gi bu mu ànd ak moom de. kii yaa ni mu fi maanaam ci wàllu ngóor yaa ak. jigéen ñaar comme kanaa futu. maanaam buñ buñ def sëy. kaalaa ñëwaat buñ maanaam di jël góor yaa. du ko du ma yelloo ba ji. mu ngi amee lan yaatoma mu ne ci façon yenen yeneen façon tëdd tëddin ni yenen maanaam yeneen ut bànnee kamila ñora kañoo so pour de eh, laxaso wonte di fonante o fi kenole mu ne loolu du problème am yoro be su fekkente sa deret mu nga am nak moom ka la ñu yelo kan mu ne pour tëdd ak jigéen fekk mu nga amee deret foko foko la mu ne boobu de war na doon eh, jafe jafe juro na la maanaam loraange ñëw tombi tamala na Amana na tukkikat bi ñëw na afama dala musola moom de gëj na jab jabaram am so famata ya fekk jabaram tam mu ngi ko géej biyabe na tey mu ngi ñëw hakkilolo rena ah ñoom ñaar seen xel dalalante anara ah, ni yelo mu ñëw fekk fii deret to bi yelo be tilulu kila na amaan na deret bi dina dem ba juróomi at wala tilta wala fukki at fukki fan aba toora la dina ko sonal na na mela e eh, su tëdd tëddut ak moom yàlla arabi ka fa ken mu ne yàlla du wax na am de ba ni na yela waaye soo tëdd ak moom yaa fa do la su boobaa nañ la ci sadab la kafaroota. pour yàlla jéggal la sa baakaar su fekkente ne amuloo da nga su ko defee nga waa astafurlah. yaa musoo dundee Kéwa Ka. mu ne ñu jël jigéen ñu jox ko jabaram maanaam siit. et puis xamee rek ñëw la. ñu ngi ñu ngi euh, nen wante. ani ah, yeloo benn. waaw ah, tombeeg deret ñëw. tombe yeloo benn loo conseillé. amaan na deret bi dina am boo euh, semaine. nen bett woon nañu ko laakaan. ne su xat-xat bi ñëwee ak jafe-jafe. ana ana yela. mu tëdd moom. ak si sa mu ne su boobaa mu génnee. wala Kéw ko mu Kéw ñaame. wala góor gi. kii mu ngi mu ngi mu ngi mar jigéen. naanu muso mi la saa su tëddut ak jabaram bi léegi. saa bi njéenato. loolu mun na tax mu dem jaalo. wala toorato. wala mu ñëw eh, indil koloraange. naanaa yela. mun na su tëdd moom. Eh, eh, fekk mu demee dina na jégal. baax comme il y a chance di wol toll. façon yooyu jox nañ la chance. wala taqrabuhunna mu ne waaye bu leen leen jegee alkana kara muso ne ne be yelo bu leen jigéen yi nga xam ne ñu ngi amee deret wala alni kana la ñu bu leen ñoom wala musiyanin ke ya wàllu góor yaa ak jigéen yaa. hatta yàtt xurna ñoom ñoom moom jigéen bi mu set. hatta yàtt xar na kara ñaadoo fo ni seen mu ne dere rek jigéen bi mu set. ala yële si yàlla. mu ne moom eh, deretu xaydi bi. kabo milite kile. waaw lu ko jëlee si benn minute. naa de eh, su fekkee ne tuuti na. kata eh, filtane loolu. lu ko dalee foofu boo fukki fan ak juróom. naa si su dee bari na. ah ol mu ne diggante boobu noonu ci la nekk. naa la yeloo naa kun. mu ne su fekkee mun a dog ina teelala ah, doo tëdd moom de a da ngay bàyyi mu sangoo ngum ina yela nga door a tëdd ak moom ina janaaba mu daa de sangu janaaba fa ida tataharna ni e, e wulu yelo ku e yelisi yelo ku mu ne suñu raxasee e, deretu xayd bi fa watu moo leen bu boobaa nag a tuuxnal si ah, ngeen ñëw nag ngeen jokkook ñoom min haysu filala waaw ah, waaw ci yoon boo xam ne min haysu keeña ci anam boo xam ne amarakum la leen yàlla digal sooy tëdd sa jabar. ala ko yaa keñaami. yàlla wax la ni ma koy defee. yaloo be je. Euh, mu am deret. alkana kan. bu ko def. yaloo kundura. su deret bi doge amee ku folo. waa te sangoo ngul. alkana kan bu leen euh, jokko. n'a ku la su sangoo ba noppi. dinaa fi naa kan nga door a jokko. ala ala yaa amaru wa. yàlla loolu la leen digal. inna la ala. yàlla de. yuhibu tawaabi. moom bëgg na ku. ala ala fira tuubi laa. yàlla bëgg na ku tuub. wa yuhibu mutatahi. yàlla bëgg koo xamante ne dafa. ala kan moo ciblé ay ne dafa civilisé. mu ngi amit deret ke yaa be yeloo ko yaa nga jël nguur yaa dugal ko si deret bi yàlla man sibila mun a xam nga ne loolu civilé sawul aye ah, yeloo kon eh, su deret bi dogoo amee ah, moomee ko te moom sangoo ngut o man sibila te boobu tamit civilé sawul ina mosoo kafu nga nga war a jokko tëdd janaaba ye soro nga yaa eh, nga am janaaba ibi ka janaaba foo te doo dee sangu janaaba o man sibila loolu tamit civilé sawul ala la fee sibila mu ne yàlla dafa bëgg nga civilé jaatoo la sa yaram ye seneya nga set e sa xol bi tamit loolu mooy suuf bi. keme fula. mun a ñaar téeméer. mu wàllu fula ñaar fukk ñaar. diina important dem baala dem. diine bi dafa importance de. bi ka a a setal na lépp. saa ni musoo be kenn siyaala. mais su fekkente jigéen bi moom mu ngi nen nii. yàlla la amul deret. dinaa si la ah mun nga tëddaal moom. loolu taala ah, amul waxtu. waati taala amul eh, place amul bés. ñeenti bu la baax. yow si dee bëccëg la sax. kii bu la tëjee. Eh, amul bëccëg. suura tëjee amul guddi. lampo bi ma la. Ah, lampo mu ngi tàkk. lampo faa lampo fay. ndew li mentale. suma doom yi mag na. waati waati taala amul waxtu la. kale tëjee sax amul benn kale léegi. yàlla doro. yow deret bi yaram mu ngi fu wér ene ramu so ya sa jabar tedd la nisaukum ah, mu sen aha allah mu musol sen jabar ni yi ah allah senakum ko allah sen ga seen sen tool lañ de yaaron toolo mu ne tool de sarati taala ah mu ne amul ben sart ne tolo toolo sooy ñëw si sa tol ala bulba ah ndeyjoor jor bina wal non ngay ñewé e bi karañ kara sa wala doo dee demee si ñetteel sarati taala amul sart e bina somandal da ngay eh, ñëw suba te lu bulo bi karaje wala ci do fa dem sarati sarati kum ko la place moom amul foofu de. waatu adlamu mu ne waxtu bu la nee. si ngay dem foofu nisaa'ukum nisaa'ukum. adlamu sool mu ne seen jigéen. xarsum ah, seen seen tool lañ ne. la kunatule pour yéen. faatu al sitaa tool yi. ay na na eh, daaw daa. Ah, ci place bu ne. an naa waatu o waat. waxtu bu ne. an naa ñaawo ñaa. anam bu ne. fii du naan la. waaw nu ngeen ko buggee. kankool. tolu man banna maka ñoom ñi nga xamante ne dañ jóge màkka ñu ñëw madina ma makanka ɗole madina muso futu am na benn waa makka bu takk benn jabaru waa madina madinankoolo waa madina yaani noon tubaabol ɓe si ñoom dañ toog ak tubaab yi alay huɗol a yahudi alay huɗol ko al yahudi ñoom ñu ne ni ni musoo bee soo sooy tëdd ak jigéen ɓe sellaa kan da ngay eg ci kawam yaalandi nga tëddal ko yeelaa kan nga tëdd ci kawam comme sisini sisi comme euh, dënn ak dënn ɓee eh, eh, laala kan nga tëdd ci kawam bay bi kaa jimee waaye doo ko de juutal makankoolu makka waaw makka yi ne don ne musoo keela ñoom eh, suñuy tëdd ak seen jabaat keñaa jama eh, anam bu ne lañ dee tëdd ak ñoom bére makankoy madina musoo fo bi waa makka bi takkee waa madina bi promotion eh, maanaam ab jeeg jeegoo ñu bi yaawa dal da kew la mu ne xam nga kooku tàmm na anen kee foloo kalaa ñaar li mu daan tëdd ak jëkkër bu njëkk bi mel ne foloo yaa foto ñi nga xam ne ñoo ko njëkk a takk kaalandin dañ ko daan tëral yesalaka ñu s yéeg si kawam makanko kii waa makka o kaa baa landin moom daf ko bugg tëral pour a jimindi pour eh, eh, juutal ko ako ani mun a ko deedeet agootol ko mun a ñoom duñ dee def loolu e ko ma bidan tole ñu loolu baaxul ci ñoom ale hudol ko yahudi nee nañ ni ka musoo jimindi ñu ne sooy juutal jigéen e ka e, e na kela ngay tëdda ak soto do a su fa doom amee o ka yàlla ma la maanaam a ëlbatu faa ñaay ke ñaa fala si yéen buti yaaxu bàyyi tolu fee ñoom pour ñoom bi la musoo be laariŋ bi mu tëddee ne ma ñoo kiraa ko su supaam bi demee ci otuma laariŋo la mu day fekk waa a be mu ngi juutu ne maniyo kira kono fa eh, maniyo bi demee ak loolu tale moom dafa mel dafa juut o dion si lan jur doom jooju mun na am problème waaw tol bi ka mu ne loolu moo tax duñ def loolu eh, balanda ñoom ñu bañ loolu fano ok la bu bër sët ala ayo jin yàlla wàcce aay misaakum misaakum allah musol seen jigéen yi arsul lakum arsul lakum allah kunkum seen i tool faatu harsakum na ngeen dem si seen tool allah kunkum dem na si seen anna siitum anna siitum adiata ñaan noo ko buggee alan ko doron man eh, pour rek ke yaay bula musiya ko pour góor ngóor yaa bi dugg ci payu jigéen bi. yàlla nga taxawal. yaa sindi nga nga teral ko yaa jimen nga juutal ko yaa bitin nga eh, teral ko ñaawo ñaa noo ko defee ke yaa yaa góor yaa bi ɗum musiba na dugg si fayu an naa fiitum comme noo ko buggee lafi ala ñaawo ñaa noo ko buggee rek fasa laal doolu ko mu ne am na yenn eh, tekkikat yi de an naa fiitum ñu ne an naa fiitum a daawɗaa biyatee mo fépp fu la neex si jigéen bi nga bula je na nga fa dugal nii la fiita mu ne soo buggee ye bula nga jël ngóoraa bi a daa ko nga dugal ko si géem ke yaa suusu mu mu mar ko wala karola wa mu ne ci loolu muso jigéen bi ne kela ke a suusu mu ne su fekkente ne mar nga sa ngóoraay sa jëkkër même ka baa kono mu ne luy génn ci loolu o ko sohal ñu ne loolu de a a kii la maanaam lu bon la setul o bi ka duma de mu ne loolu duñ ko lekk man yo manide maziyo. mazio wadiyo. wadio men ka bakke ya muna yige gene si eh, go subana ti eh, e saw abuka dum muna yoy e kenn ko lek ne ke ya so so so mare ngora ne mani o bota fekente ne manni ito ito kuno nan muna lol do ko lek abuka abuka dum muna lol kenn ko anna shiitum anna shiitum adawda muna fune sike ya dunje mun na fa dugal sambo abulo kono ci lohom ada kono ci gemi awtol tema ci eh, digente amusiya kono ci ngo pay jigen bi bi dole ko fan mu ne ñenn wax nañ sax ana ake ak nag wanda kaw daa mu ne ñenn nee nañ sax si gannaawam fu eh, eh, kama bi di génn mais kama na eh, koro jigéen mu ne kom góor jigéen yi nu ñuy def koro jigéen yi mu ne góor jigéen yaa moo ko yoolu nit yi weex yi daal daal ñoom dañ ko tàmm keneen góor ak góor imaam moo ko banko mu ne soo gisee nit yi nit yi weex yi seen dëkk yi nii ko luwaam suñ ne luwaa wala ka coocoo ñoom duñ dee am problème laay saatar laa ñoom dafa mel ni tëdd tëral bi moom dafa fekk mo fi wonde man dalala nit ku ñuule ñoko tambu on bando dol kambande dende ma walla ñani se biñ nekké waxambaana bu ba mo ko la programme bi problème programme nit yi wéxé la mo ko ka ne diya to fi kambano bala ko sunkuto waxambaane bu ndaw comme nu muy amee wax eh, banex ci xale bu jigéen e ki la musol la ñaa musu yalla anen ko ko ndaka ba dal ñoom dañ dé tëdd seen jabar yi si eh, ci seen pay bi ak fi nga xamantene foofu la ko bi ana doro ko musoo daaw daa moo tax ñenn wax ne si eh, jigéen bi dal si bépp ah, bërë bërë bërëwam waaw loolu naa la fem baamaan sowo waaye ñi eh, lu ëpp si borom xam-xam yi kaa doon de kira ko ndaabada daanoon pour nga tëddeg sa jabar nga xamante ne foofu lay demee duus ba naa manqué mu ne waaye su nekkut loolu dinaa si la ñaaña mun nga tëddeg moom ci anam bu ne saa foo si musoo la musi a suusuunu mu ne ndax yow yow góor gi mun nga mar jigéen bi moom si payam bi bàyyi saa daa suusuunu comme yow ni nga mu di di fóonanteeg moom di maranteeg moom gémmiñ daa ko na sangul man koso mu ne eh, gémmiñ yi yooyu moom amul benn problème kiilaa ko hallaa bigantu laay bo sa nin sunkuto yoola ñene e eh, sa daa yooloo suusu no e daa yooloo suusu bay daa ko na fango man koso mu jigéen bu ndaw eh, yonente bi nee na kooku mun nga fóonanteeg moom di maccanteeg moom si gémmiñ bal men ka ba ke ñaatoo ba wa koso dal mu waaye lii génn si payu jigéen moom loolu moom koso la nekkee yaa suusu même ba

ita fana ni na da musu asu su mun ne yau tabi so da fe ita ji na da ba ti on fan kabujo ko sota ne do na do de na lepp lu fay gena loolu baaxul ma ji yoro man yoro wadi yoro ma ji wadi yo man yo yep do ko ma wa kaddu wal fitam ben do ne su bo abo ngeen jiital nak an fusu al fon ngeen jiitalal sen bop ka ka suro ka eh, eh, fori dañ de def yonente bi ab dof e ko mi ma da si ya ba ko julliti ya bi mom eh, gemiñ bi dafa kuma yan fo kuma kana fo kaatele wax bu neen la ñuy wax nga wax lii wax la lay xana moo bi daa jonkaa bee sinaane ñu ko def ñu ne suñu di dem sa duus nga koy wax ne soo demee foofu ni ngay laaboo ni ngay a affaire ah, moo na la mu soo laa a fan yi ko def ñu ne xoolal sax a nga commencé di ko wax ni ngay tëddee moom dina kamal li mbar ne diina moom dafa mat de li ngaa karang mu ne nañ ko jàng o xaddimal si tambi ndooki laa fukaal fondé jiitalal e moola musuku la muso lañaani ɓeewata fan mu ne nit ki daal nu muy tëdd jabaram daal na uteeg naka la e, mala yi dee tëdd ak seen wa kaddimu ko ali mo e, muqaddimatul jima ali e foloo kula janni lañoya moo tax mu ne kon muqaddima limu tekki mooy ngeen jiital dara balaa ngeen di tëdd wasila ba wasaada biya dundal be mu ne fekkat balaa loolu di am fekkat bànneex bi dugg na leen yéen ñëpp kañoo jiibe maanaam ngeen xoolante kañoo sumb ngeen di jaayante. ka ñoo di am ñoola. ngeen di waxtaanalante. yaa je malaayikoo la bu ko doon récolté. mu ne façon yooyu yëpp jë malaayikoo yi duñ dee bind loolu sax. futu laa naa la musoo mu ne eh, kii seeg eh, jabaram. il a action noonu. seen diggante action yi ñuy def. bi ka récolté. mu ne loolu duñ koy bind. malaayikoo même foo kee kan. mu ne malaayikoo bu lee garder. avec àll mu ne bu dee xool. kañoo ken sonje mu ne di xoolante yenen yenen contact euh, nen kañoo kajandu yenen di waxtaana ya ya hana hana le baane mu ne ngeen saagante sa balaa ji daje gën wete mu ne amul tiyaabo amul amul amul amul balaa ji daal gën wete amul baakaar amul tiyaabo yàlla ala ko nen di Mune ne yàlla nee na saaga enen ɗo e kiitiol sotol mu ne ay asset ala ɗolu haramu da am na yoo xam ala ɗolu daata Amna na yoo xam ala ɗolu konda Amna na yoo ala ɗolu baraji daje junube am na yoo xam amul tiabo amul uh, amul bakar. ke on musoɓe men na mu ne góor ak jigéenam mu ngi nekk si ab mbir wol yaata jee junube ta ji mu ne fen nekku fa baakaar ne toon mbiye musu jama baabu Mune amana amaan na mu ngi amee jabar a belaari ñi men kan bi ngi tëdd tey si bi jigéen a kaa fof ko mbe e ñoo tembo mu nan ko yow jigéen bi etela diyaate deeti ya yaa gën a neesu naa bota etiya ah, samata kola fana diyaate teti su jegee si yow mu dem si keneen mu ne ko a nees si yeneen jabari mu ne kon wax a ah, ko ma ka tele diya ma ñam muso mu naan la maa yeneen a neex nga naan ko ah, yow kay a ye baane mu saaga la nga li anfusikum mu ne ngeen jiital ko falo ngeen jiital seen a na doron waaw mu ne mbaam moom day ñëw rek. yo musota laari mun na nga fekk jigéen mu. yaatara siinoo la fekk mu a ah, daa mantara seneyaari. a ah, mantara bam ah, siinoo baala. mu ngi nelaw. ka foofu na binta boten. ka sele sele naa ka. nga nii rek. alkanaaw oh, si tam bindoo te. ngeen jiitalal seen bopp. en tout cas fond la. ngeen jiitalal seen bopp. wala ñoo sum bool. mooy fóonante yi. anen ka mili ñoo la. ak di langaamoo. jàmm da jàmm moomoo. Eh, laalal mu ne loolu yëpp ngeen wax aleen ala balla ñu ko defee ngeen mujjee tëdd naa meji meji kan alkanawul mu ne su wàccu wàcculoo ngeen bañ a jóg yeegi a yeegi mu ne moom tamit nga fexe ngeen ñëpp ngeen wàcc wa taqula fi sil ala mu ne ngeen ragal yàlla wala ma la signal mu ne ngeen xam ne annakum kaatulu comme yéen mulaqu an ala bi benn ngeen dajeg yàlla wa bashirul mu'minina nga kontaan li maanaam moo lu seewante ay nga kontaan loo ñi gëm yàlla yi te la moo ni sax mu ne ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñett bakar wala tajalullah lahal kana ala ke eh, mu ne bu leen def yàlla wadda tan bantambil sen maanaam ngeen def ko baare kaay la iman ka allah kaloo si seen waat yi mawol kuyaara mu ne nit ñi xuloo aye kal mu waat a kaala e mbaado mu ne moom a bi ataana faana dootu ko njëriñ de atitaya du dem ci moom ana komtude euh, dogoo nañ maa ne ne laal naa euh, nit ñi ñëw pour euh, wax wax seen diggante ñëw pour a o yediroo pour mu yediroo loolu ay mura baadi on kan pour mu dellu si mbokkam yeke kilende pour ñu nekk benn a kon sonda mu ne ko no mun a allah kumo seen mbir bi naa moy wa ah, jël naa ko bari men naata ke waaye lu lu ma mujjee def kaloo leen saaba ah, man dama nangu baɗen kaltal waaye dama waatu bo noppi yalanto tuunoje xam nga ne duma mun a bàyyilu ala ko anide yàlla na ko déedéet kana kalooke bul def waat bantambiir lawte nga def loolu ab ab laluwaay kalewati nga def ko ab kale ko ñumaa ne yow lu baax ko ñumaa ke de mu ne defal lu baax de ibe kaloole lakkati la da ngay da ngay ŋoññi sa waat bi kil saba suŋol maanaam ñetti fan walla moo tan du walla nga dundal walla walla yee fiyoo do walla nga jo eh, jo koddu leen walla jonkan fo walla nga jot er ay jaam. yekkal wala kari. su ko defee nga génnee waat. ye yebaadi a ñeñaa. su ko defee nga rafetal. mbokk Abdoulaye bun Rawaha. mu ne Abdoulaye bun Rawaha. ayoo jira wala koo saabla. amir aaya bi ci moom la waat. ana baar mu soro kuyaa. Ah, moom ak jigéenam ñoo. walla walla bitang. walla sax gorom. comme ay la muso. comme sa doom. Eh, sa jabaram. bee daal ji. ñëpp tamit ci lii lañu. ngankal le. mu ne waat naa. waanante witroo noonu. moo tax du ma mun a witroo de. mu ne génneel waat. ye nga nangu. pour jàmm jàmm. waaw tey bu leen def yàlla. ngeen def ko kale. ci seen waat yi. pour ne. kawtet ku ɓeto ne yen du ngeen def ju baax o tattaku alɓe silanna o ti sulal si ɓete andiroke a ah, ngeen rafetal tamit a ah, diggante nit yi wallahu ala yàlla de sami moy laalama yàlla mooy dégg ku moo ɓe men ka fo lépp alimu lo naalama de te xam gën a xam ke mefla mooni ah, mu ne kalol euh, euh, euh, la kalol ceeb ñaar téeméer ak ñaar fukk ñu nañ ci. laa yoo axizukum ala daal mu dala kuula. ci wàllu waat nag yàlla du leen téye ci mbir. di lago fee ak kaloo. ci wàllu eh, waat yi ngeen di def. ci caaxaan ci ay maanaam àll ak kaloo. ci seen waat yi. kama en kalol men mo fiya kalol waati nga xamante ne caaxaan amam bo sonn moo ko mu ne fekk loolu jógeewul si sax jon betoor mu ne yooyu amul baaka eh wallahi bii suma kolaade comme ngeen wax ne wallahi eh wallahi bii suma adale eh wallahi comme mo len di amoni wallahi wallahi wallahi ngeen wax ni e be kemo da kola na ko jappé walakin bari mu ne waaye nag yo akhidukum ala kalmu da kola yalla dina len té ci mbir bi ma fon la ci lo xamne kasaba da kulubukum son do mo men ba manam sen xol yi lu mu jëf fi ron wa fi o fele de mu ne ah lii de jënd ak jaay mu mu jëllet lii ñaata la ak ñe keme ah defal ma ko téeméer yekkali nga waat waat ko defa asura keme fula yow sax yow am noo ko amee ko amee o ɗum oɗa hani ma asura keme te fekk yow noo ko sax pasawul sax o mawli akkaloon ne mu ne loolu waa fenu waat walla ye moo laa hedi walla nga dig nit ki i ka nde sunderon di le ko dinaa la jox ndogu ye kala walla nde man boɗo di le wallahi dinaa la jox saaku saaku maaw e man naa diyaala ye kalore ke oɗo kalwo kala yaake a ala kan mi yawaali ala mo dako min wuli alamo wuliya kalolam junuɓole wode jahanama dumo ɓe ni alama yanfen nin lahide tiñalam kam ɓayo eh, ɓe je yooyu laa ijjunu boo da nga ji. ndoy boo kafaar la nga am baakaar woo te di nga kafaaralu. kal kafaaroo la. mu ne di nga def kafaara. waat bi mu ne mooy ñetti fan nga. wala wala jonkan fara. wala nga jot ay jaam. wala lu moo tan daañu noonu. wala eh, eh, dama doon doon seedo fa. dundal fukki nit wala nga koodu wallahu alam. mu ne yàlla de. afuron kafaara la ma. yàlla de jégalkat la. halima ka nga kaatu ba. yàlla tamit dafay yelamal. sabar laa ma. dafay muñ lillazina abekke waliyan mugi nekkal ay goor na men ka naani ka men ka lation kun ñi nga xamante ne dañuy dogo seen jabari ci lal min ni sahila musoldo si seen taba tarabbo ci fi bato moom nañu xaar arbaa aso karnane manam ñenenti weer kewa fela ana la muso be ñoo kan jigéen bi mu ngi ni góor gi mu ngi ni moom jabaram mi ngi nekk lan juróota muso ah, amul benn problème jibar bi am comme yeloo be ñaami maanaam deret comme deret nu mel walla faabe suusun walla mu ngay nàmpal a ban la muso waaw moom daal dafa jékki-jékki rek mu bañ jabaram avec la relation bi ko jox ah, ayam ni yow ke kewo mu ne yow góor gi soo ko defee ameerum Ah, yàggaay bi. karnaan. ah ñeneenteewu weer la. ñun karnaanoo fii la. su ñeneenti weer yi passé. imma yi ni muso yi la. imma nga dellu nga tëdd sa jabar. wala yaabu la. wala nga fase ko. waaw te tulat ñin to de waaye du dessi lii de muso ɓe bolo jigéen bi yaa ngi ko amee aluɓe ñoo kan yene ngi nekko i ka ponis nga koy ponis laaraŋo la ci lal i ka ɓalala laasiŋo la nga nga koy xañ si njëlam i naa la i naata futu la ngay tëdd ak moom te doo sey ak moom ama iman courant feebaruloo i ɓe ñim ponis kan yaa ngi koy maanaam yaa ngi koy eh, eh, lor janni karna mu ne loolu de aku bi ñenenti weer la nen karnaanoo fi ñenenti weer yi matee foo a futu benn nga tëdd ak moom wala kon nag musóor fond la fi daal de. mu ne xanaa jigéen bi si boppam bugg. et eh, tout buloo ñaar mu mel mu nekk ci yow. ba ne musoo complain la. si jigéen bi complainer loolu. fokk mu ne lenn dina am de. et eh, tout bulu. benn mu des si yow. kàlla laa sonn. nga koy jox njëlam. wala yaa bàyyi wala nga fa fase ko. yaa bula nga bàyyi ko. léeg-léeg da nga ba keewal yi. mu ne mu ngi nekkal góor ñi. keewal fii sa góor ñi nañu ala an musal futu mu ne ngeen sey seen jabar yi Omar bun Khattab mu ne Omar bun Khattab CID continué mu ne ki nga xamante ne CID la avant président en tant secret fekk moom président même si su guddee ak a bankootaan. daf dee wër dëkk bi. mool la badaada. pour di xool nit ñi seen coono. wala même bii si yaa joolu fa. mu ne loolu moo tax nit ñi tey mu uteeg nit ñi en temps yi ñu am tey. wala ka bankootaama. ñoom dañ dee wër dëkk bi. comme bi man sale. ñoom nguur gi lañ koy wëral. wala mool la ku kuréel. pour nit ñi seen lu bon neex. Omar bu taamu. mu ne Omar bu Xataa mu ngay wër. suudoo si guddi gi. ay mosoo woo si Kamboy. mu tudd Omar. E, Kéema turam mu ne jëkkë jëkkëram. dafa dem xeexi ji. e meeta je yo yaaga fam ako mu ne ah, ne ala ñaasilaŋo te su nekkul woon ragal yàlla bente lañ laaraŋo tey suma lal bii a karafuloo bee be mama mu ñaari boor yëpp dina yëngatu nin kewo si fan kee mu eh, a si selay di wàcc si ñoo fi di kasi jam ñu ñu ñu ñu yëngalante fo laaraŋo ye mama boo lal bi di yëngatu comment tamit aya tambi la waaw comme nuñ ko tombee si beneen aaya soŋo fen saa diyaani mu ne lu koy neexal laañoyaa ci wàllu tëddoo sondoo bee la mu ne ñoom nangu na lépp a jee xaraa si fanna wóolu fa aram bariwul de. foo bee kumboolal. ndax da ngay jooy. fo ɓe ŋusu ŋusi la wala ngay ŋusu ŋusi ima na ada da la folo ka kum da sunen ko commencé rek lal be moy ñëk saka dal men ñoo kan su yeen ñi nga xamantene yeen ima ñi ko den la ran da kum bo la mune ki ne mune su commencé la ran da ten ko na e de mune lal bi du da fay amé da te mela mune mu yaaga ñaka ya ala dun dal ya di anda kana ten na ngeen neexal dal mbir bi ko den na jambe do la mune mune suma fi Omar yan tora mune way Omar lor na ma ke man su mo ala ñaasi la yam wuta mun ragal yàlla ne wande ki omar laaja duma a tëdd ak feewu jëkkëru omar be denderi omar mu ngi laaku abo ato moy la mu ngi dégg turam o suura seyda si guddi goog mu ñibbi aka di muso mu dem laajte eh, doomam bu jigéen ay men di kiiraal kim jox yonente bi hafsa ñe hafsa fo muso si sabanno waade jël ndax ñaata fa waxtu mun a muñ naaman kee góor su deful yëfu eh, su tëddatu ak góor o kooku amru ah bulu kondi naano yitan mu daal ko won ñenenti baaraam yi omar ya fasari omar aate loolu noonu karnaan mu ne mu def ko ñenenti weer so man daa ay eh, karaaroo da leetaro di si suba soos noonu mu bindal leetar jox ko ay nit sooji arabe daawda keloola mu ne soldat yi mu yónni fépp fuñ mu sako sako musoo kewe daan surtout jigéen boobu moom jëkkëram fu a ah, koni leetar fota wuraaroo mu ne su leetar bi aagee foofu si ngoon so man daa suba si buñ fa fanaan bira botoo bi loolu passé ak gasi yakar naɗedu passé wér pour ñol men la musol men sogo jaɓari yim mbawi omar kana do musul ha defé mom omar baña dugu sen aka eni la musolɓe ñooka yaangi nekka sa jabar émanlation ɗiya nga bañ ko jox njëlam tirna karnano a mo ñenanti wér la def fo na la ben nga tedd ak wala ya bu wala nga fasa ko ka musul muso bi ah nga ne da ngay jël boral sa jabar ada la ɗaato mom fekk mu ngi nekk si waxtu tedd ak goor foko lu lebe wala woro wooro nga ne juroom mo fa nekk nekk wala juróom moo fa nekk. di ko dolli jënkeel. nga ne ñenn yi da a naa la. nii naa mee laa. mu soo tëdd tëdd ak moom. o doo baabu la. da nga koy fasale. doo taa ñun. keneen dem ut. naa bi raam. yoo xam ne mooy tëdd. kon mosoo kon kuntaa ko. xanaa moom jigéen bi mu ne la ah man de loolu du problème. Ah. man mun naa fee nekk. ànd dimbaateel man. waaw ndax borom njaboot la. naan de mbala ma see ñaar. soo ma bàyyee fan laay dem. wala mosoo fonk nga di. wala jigéen bi si boppam mu ne jël naa suma njël bi jox fa o nen karnano siita mu ne su fekkente ne ñenenti weer bi daal a naatana murmuso laañu a kan ñëw dellu pour tëdd jabar ji aman naa bula ah ko fa in fa'u ni murta musolla ñu akan su fekkente ne góor yooyu deelu nañ pour tëdd ak seen yi ala la fi doola bàyyi fu de la bugg de fa inna la ala pour sëy bi bañ a jeex mu ne a gafura yam fana coole de jégal na jëkkër gi ando kar naan tam la a jarbi naa ndax ñenenti weer yi passé loolu tol nga ko toroxal nga ko loolu bàkkaar la a juna bool la ajun ba kafar ram waaye pour njégal boobu yàlla ñu mooy nga tëdd moom ni fanta laa léegi su nangoo pour tëdd moom aljanna man salma boba yalla yërëm na la kana mo ne wa ne ñaar téeméer ñaar fukk way na azamu talaqa nin ada wakilen babu lalla ne wakilu ngana wakilu dang koy fasé e ko ñen ka karna ba mu da fo babu lalla wa ñenenti wéri bi joté ñu laaj góor gi ñu nako dang koy té wala dang koy wëccu nako ba mu dal mu ne suñu waxé ne dina ko té e continue ñu continue ala ya fara tool yalla jégal ko li nako babu lalla su ne dina ko fasé su boba nako azamu ni mu ne in azamu suñu wakkiloo la talaq qabla rola pour eh, eh, eh, fase jigéen bi fa inna allah ala mu ne yàlla de samiyo mooy laalamaada kumoo de la moom mu ngay dégg seen wax boobu alimu lan laalamaada kumoo de la te li ngeen di def wat mooy saabu la Euh, n'o kɛra mun ne ba k'a a bolo waaye ko fase a k'a ta a la ɲɛ la mun ne du da mɔm i bɛ muso la ta kun nɔ kɔrɔ a xaj mun la la ndax bu boobaa mu loolu a xam la kɛmɛ fila mɔgɔ nɔrɔ mun ne ñaar téeméer ñaar fukk juróom ñaar ne naara muso bu la mun ne su ñëwee fase ab jigéen a ala maa a muso bu la mun ne gisuloo yàlla waxul ne fase fàtte leen seen i ah, moo yam rek problème la. yàlla du dee digal kenn problème. xam naa booyoo daa dee tey. fekk seen sax loolu noonu. direct ala taa fila ak. waaye direct yàlla du la wax ne fase ko. wala mu toll kaatu musol même bu la. mu ne waaye jigéen yi ñu fase. asibula ah, aadoo ko. na ngeen koo fase si aadam. bula aadoo. maanaam si aada fase. Eh, bee bee fambul la. ñoom ñëpp ñu ngi nekkal seen bopp. aada ñaaki leen de. mu ne du benn aada de. rey seen bopp. salaasata ashkuro a saba. maanaam si ñetti façon set. ni doon muso soo laal. mu ne sooy fasa jigéen. i bee batun na. da ngay xaar. affaire ay eh, eh, yeloo ji. maanaam gis na deret. ala yël yeloo kundu. loolu mu dog. ay yeeku. mu sangu. ina neela. tedoog moom. waxtu ma lay baax boobu laa. su boobaa di ko bàyyi. ne bɛ wakil la bala. su dee da ngay da ngay wakilu pour fase ko. wala mu daal ñaari mooy eh, eh, rafetal. pour fase. non te bi la doo bi daal moo. mu ne am na yeneen fase yoo xamante ne yooyu bi daal la de. tontan du ma doon loon. amaan na teg na fi lekk. koo la siyaata. Eh, xorom bi moo. kaan kaanoo siyaata. kaan bi i ka xanu ngeen bula. la. i bi ka kɛ mu ne loolu duñ fase noonu. ah bi la te fekk yow tëdd nga ak moom bono inaayo laamenki tëdd bi nga def ak moom nii foo binaa kila din ndax loolu dina doon ab doom naa kila wala du doon ab doom ikaabu la nga nga fase ko fo ne mu soobee konole la mu ne ndax ji su fekkee ne jigéen mu ngi nekk si ëmb kono maa doo faraman sarang maanaam biir boo xamante ne feeñ na soobu la noo le kooku de mun nga koo fase waa doo adgaa waxtu bu la neex wala mu soomen bi ka yeloo ji wala jigéen boo xamante ne du day gis dara atam bi da yela jow la moom passé na gis dara la noo le mun nga koo wàcc waa doo waxtu bu la ne ba men be yela jewata ato waaye ki nga xam ne mu ngi nekk si gis dere e a na yelo a ah, suba ba suboba da ngay bàyyi ba mu gis mba a senata ena man kam ko defee su setee nag ni naata a ah, soo ko fasee a yeloo jeen côté ke mu gis mbaax a ah, génn ayo ko a senata mu daal di set kelen benn a yeloo je fula mu gisaat deret bi ñaar ayo ko a senata mu sangu fula ñaar a yeloo je côté ke mu gisaatee deret imamorol wa te delo wuloko naye ko mune su sango ci loolu itamorol ma doo ko delo wat na mam bulaata sabati mune su fekkente ne matul ñetti dret allafita ñoola wa fekk yene a ngi su fekkene ne ñetti dret matul albe fu do la la da ngeen di da ngeen su fekkene matul ñetti fasé naala naala aadoo ban su fekkee ne aadam bi jeex na alan yela jee saboo ban te ñetti gis wi deret yi jeex na allafita ñoola te yéen a ngi buggante mu doon dirta jee mu ne su boobaa deeloonte futu situ kudool be mu ne da ngeen di takka takk bu bees baa ni yela saboo man jee waaw su fekkente ne ñetti deret bi génnul keo me yaa bula góor bi ko fase aka ŋe ŋe murundi la mu ko ah deeloo naa la mu soo murtal jigéen bi deelu na a bàyyi balan mu ne bañ walla fay bala wala bayam bañ walla baadum wala mbokam yi bañ walla fon ko ndata murla wala moom si boppam mu du ma dellu o bi ka kere mu ne loolu du am de ni ma la fi futuwal mu ne soo bugut sëy e baaban naa da koy tas baye bularo men waaye tas buñ la def kewa ko ngeen muran goo gina dama lay dellu te murtal de dellu nga mais man so murraya boo buggu eh, dellu ci moom hani sanji tan su dee sax yeedi kewa keela góor buñ la jox fudula la dafa daf mel ni sëy moo tegu si kaw sëy odo fi faamu kon foofu ñoo xam foofu wala yella ñunta daala mu ne lii de du dagan lahon na mu solti eh, du daganal jigéen ay yaktum na ma ye fon nu pour ñu nëpp mbir xalaqala alay men de boo xam ne loolu la yàlla ay kono kono seen biir kono teela maanaam amuloo biir i ko konol biir nga ne yaa ngi am biir walla kono beela wala yaa am biir i ko kono teela nga ne amuloo biir walla yeloo beela wala yaa am deret yeloo mam bang deret bi dogut yelo jee saba si pour ñetteel bi i ka bandal nga ne loolu jeex na walla bandale wala jeex na i ka mam bang nga ne jeexut wada man mu loolu daganul i kana wo ke bu leen def loolu in kunna saratin ni keda nekk ngi yu min laata yéen a ngi gëm billahi alala yéen a ngi gëm yàlla yawm al akhir na la kaana ñu gëm tan desu feñ o bu ulatu hunna musol ñol ne jigéeni seen jëkkër yi hakku wala jarta ñooñ de ñoo yeyo bi la na ke murul ñu delo jigéeni fi zalika ni ba ado ko su fekke ne ñu ci aada bi ne musol ado ko manam ci jigeen bi nekk ci aada ke ko ngi murunde wa jëkkëram nako delo na la amortal delo nga de do la fo ma murunde keneen wax waxam lool taxul nga delu de faafam wa jëkkër gi rek moy wax afa ko nga murunde ya yaayam ne bayam ne delo na ko atero ko eh, xaritam yi. as as yéen musu mbal. waaw dina mun a bàyyi. bee mu mbaa seen la. dinañ ko delloo. ah ni mu de. mu ne a góor. ala fa yaa muroon de. mais a lan ko ne mu delloo. baatu yaa muroon de. waaye yéen ngeen delloo ko. ani ko mu ne déedéet. atila muroon doo. mu ne moom delloo la fitaa. su fekkente ne bëgg nañ. islaha ñi ñaala fanaan. bee teel a fetal seen diggante. bari kanaa musoo muroon daa ba la soo koy bàyyi ñaabula soo ko bàyyee oɗumoye kawala ke booba moo si musoo toora siyo bee mu ne ndax jigéen dinañ ko mun a sonal si dundam bi ata tarra futu kono te nekkul si sëy ata bala futu ko te du eh, génn si sëy yaabula nga bàyyi ko ala ado bi naa ban adam bi bëgg a jeex e koy amuru de nga ne delloo ko yanaabula na jëlaat ko ne ado bi ne ado bi naa ban aada bi bañ bëgg a e, e koy amuru nga ne delloo naa yaa tuwo ñaama doron topp ci moom no tawa toora kool nga koy bëgg a sonal rek wonte de mu ne ko buge delo eh, amanke ba futu ko do fekana bugulo eh, tak e eh, ba to ala ko do bugulo ko lor e da sonna mun du nangulo en arado ne la fita mun si fekana bugana islahan pour defar be dan diro na pour defar walla ya murna walla nga delo ngomo len te diamon mun a nyi ni nyomo non den ta la fi la ni kon man buguma la ya na to wanyama ma indi ko nonu e da ta la ko do ko bu nyani hormande to do ko orma do ko bunya kana joga mun bul def lol wala hunna mun abe musol fana yo mun ne nekkal jigéen ñi. misalul o mhm. soññoo. lu mel ni loolu. alayhi na min bee kan. loo xamante ne lu moo nekk seen kaw. bil ma'ruf hakkil ma'ruf. ci wàllu yëfu xalaat bu rafet. yow xakoo bee kan. maanaam yow am nga aaxa góor gi am na aaxa sa kaw. fana xakoo bee kan yow tamit am nga jëkkër gi tamit sa aaxa si kawam. kii aussi naa fana sa neexal yow tam mun nga koo neexal aside daaroo keno mun na defar sa diggante fana aside daaroo keno yow tam mun nga defar sa diggante wala rijala wekkeolu yen mu ne mu ngi nekkal góor yi alayhi na musolu kan ci kaw jigéen yi darajatum darajo moonam ñoom ñoo nekk ci kaw ka kaañan fifty fifty mu ne pour m nag fifty fifty walla o solu kono mu ne xanaa si seen bureau yi de bari fu doo bon waaye ci biir sëy seventy five ah seventy five keo góor gi. 25 25. muso jigéen ñi. wala rijaali avec cooli yan. Ah. mu ngi nekkal góor ñi. alayhi na musol kan. Ah. ci kaw jigéen ñi. dara jaatu yee dana. ñoom ñoo leen raw de. futu bon kono. mu ne ci waa biir sey. moo yaatu. ci wàllu nite. cool góor yi daal seen kaddu moo nekk ci. wallaahu ala. mu ne yàlla de. azizun kalba kulaman sa. yàlla daal te ah, dara tew ko. ak kii maa ka koo bee kaa ba ko waree. kama from wàllu si. mu ne ñaar téeméer ñaar fukk ak ñett eh, juróom-ñett. atalaakum musu buloo de. fase de marataan si ñaafol loolu de ñaari yoon la de ñeemu soo bula soo fase nit janni diinoo kana balaa diine bi doon ñëw ila musu buloo seen fase asi tansi mun na dem ba fukk asi kene si wala mu dem ba téeméer kaabula dorom di ko fase rek kaamuron di ko delloo ala ko fuladamu de di ko mun ñaar rek la de attala ko musoo buloo mu ne pour fase de biriñu aaya jët mu ne bi aaya bi wàccee marataan mu ne ñaar yoon rek la ñaar yoon rek la de nana abula mu ne nga moson ko fácil. benn bi a te nga fase ko fula ñaar e sa moron de noon mu ne munu ko delloo ba ni yaabula saban jam waaye soo ko fase waatee ñetteel yoon eta moron de noon doo ko delloo a eta furu sir doo ko mun a takkat wannan kee daa furu xanaa beneen góor takk ko oya dun den ka mu sëdëg moom fay mu saakuna al musoor muta mu ne jàppaleen seen jabar yi bi maaroof hakkilama yàlla ci xel bu rafet moom mooy la musoo naa bee bulo ku ne sa jabar soo ko amee amuda ko moo de jàpp ko comme nit ña kana dunga la bum tax e, e, e kana toora buñ ko lor e kana badandi bu ko bu ko sonal ñin dol ɓe nafiki yalla mu ne yi de dañuy naa fexe tubaab yaa ne tubaab o ne loi mu ne tubaab ak loi kaa fo mi simo la ñanto e kaa fo musol la ñanto jigéen yi seen seen seen war e de moo haɗañone musi tiñaal dañ dañ buga yaaxa suñ jigéen yi qouran ola fuloya wal ñi mu ne alqouran moo ko njëkk a wax fa im sako alal la musol muta yàlla moo ne jàppaleen yaala ngeen teeleen ko mool le muuti teeleen ko ko xorom ormam wala mu. leen ko ñoom ay nitu orma lañ. la la la la nitu noonu. mu ne su fekkee ne doo mun loolu. aw aw man doon nitu kenn. wala yow a loolu. tase loolu. aw tase wala lu yebbu la. wala nga wàcc ko. bii sànni bu la ñaar ñi maa. waaye naal ba tara ñobbul. su ngeen di nekkoo. ay moolu kontaan. na kontaan loolu. Eh, kar naa kee teem. ah diw ak jabaram bi. kar naa musoo ba diyaare. ah kooku ñoom. Eh, eh, teem mooy ñaabo. ñoom seen diggante moom. adama abeg naal titaan noo. a dem abla ko ah fase ko am fasen somba la. su fekkee ne sax am na jikko kana wasaata bul musa nettali nit ñi jikko ete musu doo bula yow am na benn jigéen boo wacce e ka man soy tama nga ne kooku nangulu la e sina ja bulu di nga ko mun a ñëw gis si beneen jëkkër sa safa tente da ngay naan bi di a noo si soñ ñooma bete dina nangul kooku bu baax hanni wa faata kooku su deewee sax e koo tele fulala musu ñu ne yow yow sa jabar inaata amurande ka ñu ñëw delloo ko si yow sa isa jeenaaman be nga gis doo mun a juboo as kenn al al al al al ki al al ki on walla ma ñoota ruux walla ma ñoota ruux rek oɗon itamuɗano kuula awa soko munul teye teki muta la ɗo muna teye so jëkkër altala ah, muna kon uh, eh, eh, tagolen si ah, tago kanake fitna de ɗum don fitna police defa ɗum sa yefu police a kanake kiiri defa de sa yefu atte a mo moni mo kana kuya ne ganaw fase akana akana baadi a fon kuya ɗum dog sa yefu mboko ande sukonongol ne ndax keur kergi fa Ya dengol dom wala dom dom wala dom nijaay non ñoy doom yi neen mun nañoo seeyalante. fudu ba je fudu bamba je. waaw ndax seey moom mun nga seey mun nga fase. non fudu ban. su seey yooyu tax. ka wa kana altol te mo ku yaa. loolu mu yaaxa yéen seen diggante. sa kaasige ku yaa. yaaxa euh, diggante. e kana nin sa e eh, daa di asiyare e kana kuma saara. mu ne ku ñu fase nag bu jigéen ñi. ala ala ala ala dan ala laa dan. mu ne ngeen ne daal ngeen jàpp ne daal waaye di wax ne kii lu ma koy yàq. xam naa kaa be muso musu ñene. su fekkee ne sax eh, bu gën a takk kuma jama la ko. biha wax na wo lu bare ci moom walla musoo tiña walla nga ne yow da ngay yaa kewa kee kaaba ñen mu ne góor bu ko bugga a ko en kee ñi men faay he koy jëkkëram lu wax ci moom mi fi ma sibra si dale diine bi dafa civilisation al kana oke bu leen def loolu wala je lu ñu manda mu ne lii de daganul la ko atol ya pour yeen an taxul ale mu dara pour ngeen jàpp dara même ma fon la ci kaw loo xam ne ateetu moo fun na ale men di musolu la ngeen jox jigéen yi c'est en fin ci ay mbir ale futu naa flo men di la maanaam can bi ngeen jox jigéen nawatee bu leen nangu bu nangu ko bu ko nangu si jigéen bi o ɗum o kewlo kaake mune goori ɗen ko ɗan def fudu nafulo kilin manam benn candu yemmusi tañina nga ut si fukki jabar ñemmuso ci jigéen bi yaa ngi ne wila kelen nga ut ko ci junni misaal fe si eh, misaal yaa dun min kan nga ñëw tëdaak moom e ko naa ku yaaral nga ne danga xulóog moom i eh, kaa ngee bula nga ne ko fase naa la na wila kilan sañ nga may delloo suma junni yetaa musu doo ñinaa nga dem ut beneen jabar o oh, wila kilan mu ne benn junni waati dandang yaagut nu yow fanaa bula nga fase kooku i kaa na naafuloo na ko jowma suma yetaa musu doo fanaa ñinaa dem ut beneen jabar musu musu tan furu naafula kilan fukki jabar benn can avec te fuɗo naful tannete mune da fay ɗon bu fukude niyamo so ɗon ɗen kan mune so duga so jigen ni na talata so fasek moom ga fuɗo nafulo kan da ngay fay bi de alkana mute mune len de nongulo ale men de mune bulen nongulo sey an fenna sey an wala wala ko an ma e, e, kayelmo ɗo wala sey an question ɓelete de mune a e, sey an feŋo ɓe mune lepp lepp dole dañ ko def e be ka funa fulo kane mu ne do eh, ci eh, lal bi nak almoir do ah bi nag. fi raw do yi nag. dole ka bela ko de ni dañuy jël lépp a soto tan nafutola kon mu ne a lii de bim koy am da ndela ndela har jeemu man suma wër wërsëg bi la naay musu do ñen su takkee benen jam la ran do ñu mun na ko utal benen la ané fion mu ak yëf o do e fion fen di mu so la soola futuola kan lepp lo jox jigen bi ci sey moo tax ni abla taala wata mu ne soo ko moko e, mom ko moom bu mu kono fion dool ba mu ne yenn mbir ci neegi mu so la ta moom jigen bi moo ko moom bu mu kono fion dool ba yenn mbir yoo xam ne ke wala taa moom góor gi moomu mu may taamu men léegi jigéen bi yow li nga moom no sida jëlal boobu de bu ma taamu men euh, néeg bi li mu moom kewa taamu men góor gi li mu moom nga bàyyi loolu foofu illaa yakaafa foni fulo silanta lu dul rek ñoom ñaar ñu ragal ne allaa yuqiima ko fuloota lon di waccoo na ñoom duñ mun a taxawal huduuda la ala la naana maanaam li nga xamante ne mooy frontière yàlla kee fula ñaar naa la musoo góor bi ak jigéen bi dun den kanta maanaam ñu tëddoo bay la koo bi ka ñoo taa waaye ñoom ñaar daal duñ dee mun a o odoo la musoo bula waaw kon fasal sa jabar ji yàlla ni ngaa bula ah kii su ma ko wëccee nakk futu naa fulo su ma bi defoo dinaa ko ñàkk ete ene keman te yow jigéen bi déggoo sa jëkkër est ce que lafutoo ban tasal say say bi rek lafuta walla ah, man loolu laa buggo de ba ni nga futoo su ma ko fase su ma fase moom ay men dun li mu dugal ci man futoo naa fulool ci wàllu can bi abaa ah, fula nag ngaa feŋolu dinaa ko delloo suma yëfam yi nte woon wala de te su boobaa say be ñoo ñaam léegi yéen a ngi nekkoon nii rek ni ñee bula rooke ci su fase fase ada perte la dina perte ni ñee futoo ban kële su tasee abe naa fuloo dina fay alal te ñoo sàmbandoo. ñoom ñaar duñ mën a yóbbuwante. il faut il faut yoo leen. ñoom xam nañ loolu. bari jànnee benn. waaye fii nii moo leen tee ñoom ñaar. ni wante su nekkut loolu. Eh, baaban na ah dañuy tas sey wi. doote tuunoo la te. te ñoom duñ mën a nekkee nii de. moom am baaloo di laaj. Ah, kenn eh, jógelu ci place am. illaa ya ñu ragal. karañaa doon illaa yu xaafaa fo ni moolu silante fuloo la. ku leen de xanaa nit ñi ragal ne ñoom si seen mbir. allah yokk ma ñun fuloo delloo doon kenn. ne ñaar ñii duñ mun a taxawal sëy bi. lu dul la ala la sariya. maanaam sariya bi nga xamante loolu la yàlla tëral seen diggante. te ñoo xàkkoo diinu. mun a joxante àq. saa man sa lemba. léegi nguur la ba. teeroo lemba. wala xarit yi la ba. doo. amaan fa in xifna naal silanda su ngeen ragalee allah yuqima ko ñul ko te lon diri kee noonu taxawal ñi eh, sariya yàlla bi hudud allah salaam maanaam sariya ate sariya bi doon ko mën a taxawal futu wax ko mooy axa sëy bi ñol dañoo sama duñ mun a yóbbu wante fa oto mu ne kon laaj naa kafite ah amul benn bàkkaar alayhi may fuloo ma ñoom ñaar fii ma fentu ci kaw loo xam ne iftadat bi yekk ma kaaroo kemel mooy ci li nga xamante ne loolu lañ joxe bu sonte be la yela kilon de yela mu ne kon yow jigéen bi man dinaa la jox junne bi nga ñu daal fal sufu naa flo say ko defee kilifa yi delloo eh, eh, can bi yaa bon diji ñu génnee sey bi o mbanda ate fonke wala moolu wala moom góor gi si boppam o mbanda xam si la ñaatoon ka wala yow mi nga xamante ne yaa nekk ndaw sey bi moo moo wala kenn ku ne wala xam ne dala fi muso wala yow mi nga xamante ne yaa jigéen bi ñu naa la muso bi ka daal kii moom jabaram a dem de ngoo dala fi daal te yow bugg nga ko naanaata laa su su ko fase baa ñu muusoo waaye jigéen bi aman futu naaf loolu sëy na moom munul delloo can bi wala saabu moo tax ite bi la fi ite yow yaa ngi ko ite maa neeneer la ite yow yi nga xamante ne yaa nekk di. bu dul loo xamante kon naa la aadoo ban. su aada bi jeexee. nga dem takku ko. kasi loolu amul benn problème. ñun ma ñëw fu dul naaf la lay kale. waaw mu ne bi def euh, moo euh, bi moo tee de. naa ma ma jeexit daal ñun. mu ne te su fa jógee wul yow doo ko mën a takk. ite la fi te yow bugg ko. fu dul naaf la di muso. joxal gi can bi. a fay la fu dul ne ko tasal sa sëy bi. nga dem takku ko. kasi mu ne loolu muslima da kese da mu ne jullit yaa moo am mu jànge mu ne nañ ko jàng wala jun hakka sidde mu ne lii de amul problème alayhi ma fuloma de ñoom ñaar seen fii ma fenna si seen diggante iftada bi hef rof ma kaam xamante ne loolu lañ ko eh, d'accord wallahi ni mosoo ko keew ko wala jigéen bi su waxee góor gi ne sa nga yeen bii la ah, lii de xarama jox la yembu la pour nga bàyyi ma woy fuɗu nafulo konndo si o mu mata canbi wo aɗa asatala o walla mu manque ko nen kew sondo so fekkene gorgi nommuna loolu kasitoo bu boobaa du problème o fiɗɗiya toñi mune fiɗɗiya boobu a baɗa karawa kara loolu fummunti jogee ɗa wala ɓe ñulɗa hannde ndax loolu moo leen di noppal yala nekuya ndax suñu xuloowe alkate teemo da ngeen dee dem defar seen digg daal yaajo ko su ngeen gisee ne fuɗu nafulo la ñu ah, lii moo ko moo leen tee di yebo ñoom ngeen di eh, ko su ko defee ba nii de naa naa fuɗu nafulo sooy. Euh, can bi mu sooy aadi a bota jigéen bi gis na génn ela fira mu soo fudu nga bug koo takka o fudu naa fula kilo mu ne euh, can boobu wote wasala de loolu du la euh, du la doy de i b'a doo bala i bɛ kutama la kila da ngay defaat bu bees ane ah, noon dañu dool fudu naa fula loolu tama kenn fudu dafa mel ni loolu lañu war a dugalaat ko fudu fudu naa fudu naa mu ne dafa am canu boppam mu ne sariya yàlla. ci la gaañ ma jëlee. mu ne lii ngay gis nii. bu doon laa a sariya mu ne lii lii mooy sariya yàlla. voilà taata du al kana dana tam. mu ne bu leen dee ëppool si. sariya alkanaa laay noo kuloos. waaw bu leen dee kuloos loolu daal dafa ëppool. bu doon la ala la sariya yàlla maanaam si sariya o dana tam bi la. nga xamante dafa ëppool. akira kii akira musul. nga doon góor wala doon jigéen. comme Moussa wala moo kuroon. ñooñu dañ ñooy tooñkat yi. wala yëfan tooñ. ñooñu dañ tooñ seen bopp. daal fu doomu da ko. kon jàpp leen sey bi nu mu waree. nu mu waree su nekkut loolu. ngeen ba ngeen fasawante si lu rafet. kama fula mu ko mu ne ñaar ñaar téeméer ak ñaar fukk. fa intal la taxa naan naa damm soobu la. mu ne su ngeen ñëwee ñëw fase jigéen bi falaata xil soote daala. mu ne léegi bi du dagan de. lahu wa kéwéer. góor gi du ko daganal. min baada la abla sabo. gannaaw ko fase ñetti yoon. ina ne abula si ñaata. musoon nga koo fase ñetti yoon. alors ah, hakil du mu ne leen xel ci loolu de. a abula fa amuru. mu fase na ko bàyyam delloo. a abula fila ñëw fase nijaayam delloo ko. a abula saba ñàkk taa seeroli amuru. mu daal di koo di fase jigéen bi rek. saba damaa la. mu ne ñetti rek la. kaafiro la kaa kee kenn. ñoo ko dee def rek. a yoo yoo yàlla loolu la euh, euh, euh, kot. misi ma musu buloo. mu ne eh, de pour fase ko oo faro gor. bu la rafet bu la a mu ne ñett rek. jom. Eh, jaam. bu la rafet ñaari ñaari fas. fa in talaqa naay muso bu la saban njànke. ñetteel yoon. falaa tahillaati daala de. du dagan ci moom. lahu musoye de. moom jigéen bi. min baadu laa buloo ko ko bàyyee. si ñaar saboo la. ñetteel kii bi. hatta fo saa yi naa fɔ si ña bu la rafet la ko ngeen bu la bu la rafet bee saba la. mu ne ko fase naa la fase bu yëpp maanaam dootuma la takka fas fase naa la ba faw e eh, ko hanni walla mi fiña folo mu ne su fekkente ne sax loolu mooy njëlbeen bandal mu ne sëy bi euh, jeex na ata ñen noona du ko mun a takka a fono mu lu dul rek euh, keneen takk ko zawjan keew beneen góor xayran même man beneen góor bu nekkut moom a ah, satare maa fo de wa fekk ñoom waxuñu ko de kaari ala mosoo bul eh, diw de fase jabaram si ñaar sab ñetti yoon hakkilo ah, ɓe ñoom ñaar seen xel mu ñuy nekk diŋol biyete am nañ ay doom yi nekk seen a kay yaram combe morondi mu ne ko ah yow xam nga ne bëgg ko mun ne moo doyañ léegi xanaa keneen takk ko mbaɗuma ko ɗoo di léegi dama lay jox yow xaali xaalis. yaa ngi nii nga dem takk ko. ibe maa ko yàlla doon soo euh, euh, da nga may. delloo fon fon na musoo si murum man kan. su ko defee suma jabar gi delloo. ni yaa diise la. suñ suñ la ko joxee. inaay waati ndénki nga def ak moom dara. isaabu la su ko defee nga fase ko. naa la aadoo ban. su aada bi jeexee. incha murum di ma delloo ko. ni ma maa ko yàlla doon ma jàppale wul rek du mën a nekk. ali yoo fo. ngeen waxante loolu. waaw te daal baara yëgoo loolu du dagg. ne baɗa kalama su su koy nit ñi yëgee ete o mu ne yow o ate o ak jigéen bi o faka alni musoo ɓe kam ak ay surtout yéen ak jigéen bi yëpp ngeen déggoo ci loolu al defudu noonu ñoo doo too leen seete bari mu ne waaye niti ake makoyoroɗe waawi yow soo ko defoon pour jàppale alman d' te d' accord lañ ci ñin lafiraalay musunna kii de bëgg na jabaram bii bar même ɓe waaye li nekk seen diggante beneen góor takk ko rek oye naa bula kooku ñëw si ñëw soto su boobaa ñoom ñaa ñu mun a jot ndeɓaa ñun naa man de dinaa ko takk naa ñun dinaa ko takk. Ndawla Hadj Talla man nag suma Hadj nekkul ci moom. Mbabulane dama koy fasare. aywa ah, su ko defee mu dagan ci moom. égo égo daal ne loolu bu baax dagan. koo doo daate ñaar comme bële nu mu daganee. kat ak mun a xoolal diine bi rek yàlla yàlla ñun dañoo torani yow xam nga ne ñaar ñi ñu ngey loran fudun af loolee mu te ñoom ñaar can bi rek mu ngaa di ñi naa di akeel xaaral ma jox ki mu jox ko jëkkër nii bo da ñobalantee naa ñu su ko fasee man ma ñëw takk ko adaate ah, loolu dagan na ci ñeen doobee lafiri ñin naa kii de mu ngi bugg kii bu laata sa boolee te ñetteelu eh, fasé bi moo leen kéemaa ñi naa daa soto te su ko beneen ba mbaa ñi naa maa ko fase ko kii jëlaat ko oh, mu ne boobu dagan na. ba naal yaafo. mu ne waaye su ngeen déggoo ci loolu. loolu dafa aram. dina dina sharia mu ne sariya de. ala kiitiyo. ah atem. nen tinki je kon tanka nen tanka je kon tinki nga fog tanka nana tinki kaani keso mune eh, eh, xoxu kaani anan jaati keso ak eh, xoxu jaxatu e kam lon dañ de nuru de ne ma turol long mune so xamewul gancax yi e di nga jiw kaani nga fog ne jaxatu sara la ki de do kam lon mune sariya nak sen at yenn at lan na balle la ko bo ñoto mune borom xam xam yi magi ñoo de ndaw yi dañ dee weddu ñoom déglu ñu ne déglu wax fa in talaqaha naal naa mosoo bula mu ne su fekkente ne ñëw na fase jigéen bi walaa junaa kasi de ah amul benn problème alayhi may fulooka ñoom ñaar ayetaraja ye mu ñu delloo leen ñimme bulaaj sabokola kee doo naataa mu ne kii nga xam ne ñetteelu fase bi ganaaw loolu beneen góor ñëw takk ko inaama te waxu ko waxut moom. a y'a doon den kan. bi mu bi mu ko takkee ba mu tëdd moom. waaw koo la faata wala a y'a bula. gannaaw loolu mu dee wala mu fase ko. n'a kee fɔlɔ si mun ah, na. su boobaa mun na delluwaat si jëkkëram bu bu njëkk. Eh, la ñu mandat doo ban. bu fekk mandat bi jeex na. ñu commencé waat ko si es. bari eh, a kɛra sahiba dɔn. mu ne nekkoon na ci benn sahiba. muso y'a kɛ lafu dɔ ba. Ah, jigéen bi fase eh, jëkkëram. a ko mu ne kooku du góor. yela ka so yonente bi ne ko ko dama def murree kee koloo kam mbaa yow buguloo dellu si sa jëkkër bu bees bu bu màgget ki la fase woon ñetti yoon ako ha mu ne ko waaw kiilaka fof nañen ɗo e muskude ayi ɗum ɗin kanɗe mu ne ko hana kiide mu mu seya ak yow ba noppi naa ɗum ɗin kan mu ne tanka te seyto ak yow oɗon ni ñin ɗora fuɗo ɓa kon so tase sey ki fonen keeɗo naate ñin hana benen goor ñoo takkal oye ɗum ɗin kan kooku su tëdd ak yow ba noppi a fiiron su ko defee su motee amanque ɓe fiino nekkul ne da ngay nelaw e ñaala ñaala yaa ngi taxaw yaa mu ngi toog o yaay bula mu maanaam mu tëdd ak yow ay jiifana su mu wàcc tamit Ah, na nuwo keta yaabula fayin tallaka nal na ɗon muso bula mu ne su loolu amee su fekkente eh, nañ jabar bi wora juna ale makka sita ah, loolu problème a ja yamuru ñoo kan moo jëkkëram bu màgget bi ñu teelo in zanna ta nañ la dinañ mun a taxawal ko du dala ala sara maanaam sariya yàlla bi peut-être que ñi men jete ah, mu ne lii gis ni ko du dala ñu ala sara lii mooy de yu ba yina leeralal ah. nit yi nit yoo xamante ne pour ñu xam. mu ne téeméer ak fanweer. ñu ngi nekk sotu Bakar. waaye daa teel a xamul ni saa naa leen musoolu bu la. parce que jabar yi jigéen yi ba noppi. fa balaa gën a ne musool naa futa. ñoom ñëw ñu ñëw mat. a wa aɗola bonɗan aga si seno aɗa ɓe waktu buñ koltel janno aɗoyo ban wala aɗa ɓe ɗijje milafitala soko buge sam ko hono alfimorone nanglen de teede de marufu hakkillema teen bu rafet moy si xel sa yamoron ma nga deeloo ko ba ah, bi filaɓinaɗa a comme aɗa ɓe mu ngay ñëw jee nen ɗum ita moron de so fekkentene nag munloo ko sarfuna walla liye bula a ah, ngen fase ko de maroto mbulañaci eh, fase fase bu rafet baɓe aɗotale lasuura ndax dafay jël aɗa si sa kër. naa dinaa banna. suy ñëw jiyee. yaa murundi. nga delloo ko. wala yaa bilaay ban. wala nga bàyyi mu jiyee. yaa bilaay ban nga bàyyi ko mu dem. ah bee taa moo yaa loolu yëpp na demee si doomu aadama ya ak orma. voilà tuum si koo xam ne kana musoolu mu da. bu la musoo bu leen dee tee jigéen yi nga xamante ne ñoom lañ fase. di la ran kii di leen jàpp di leen lor. ah bàyyi te yaa bilaay. comme yow fase nga ko. imaam moo lay daan. imaam bi moo la tee. teerool de ñaan mooy sa xarit yi ñoo la ñaan. kilifa yi ñoo la ñaan te ñoo am na nan ok naa ko delloo. bari yaa murundi. waaye delloo nga ko. i b'a tɔɔrɔ kan da nga jël pour lor ko. Ah, ah, mu ne bu leen def loolu de. li taa tɔ do pour ale yéen de. pour ngeen pour ñëw ëppal seen kaw. moo kana la muso baraan fële. mu ne sa jabar bu ko sonal mu. Ah, muso kana kee tɔ. mu ne eh, jabar gi tam bu mu sonal. ale mu ne loolu ngeen di wax lu bari. Oh, kii kana muso tɔɔrɔ. waaye góor bu mu sonal. jabar ala ye fulo bɛrɛ fɔ. mu ne yàlla ñaari yëpp la wax. dila kilo. si benn bërëb bi. hali kawan dila. mu waare kati sa. muso tema mu ne jigéen bi nañu tema be don ka baraka so so nangule te ni ni ni ji demande mu ne so noppaloo bo ala wa ka fakki wol fana musol waxal jigéen góor yi tamit nañ jàpp seen jabar de leen wax yëpp benn yoon kame fu ñoo ko ma waaye bul wax yëpp gannaaw kii bi de pour wanaate la mu ne eh, guru la ak eh, dogitam booloo ni palaata bi ke sax mu bool ak palaatam doo leen mun a jaay nga jaay bële fële jaay bee fee kama yafal zaga ni me yote mu ne képp ku def loolu kemen ke la musoo toon góor boo xam ne dafay sonal jabaram e ka ngay de nga koy ayib fakadi wala manam so yafan ne kon kooku tooñ na boppam de ar kana wote musol la bu leen def loolu jigéen ane kiilu a kalantan kana wote ka mu ne fiirange boo xamante ne sax ñàkk e fayda la bu e def loolu e baa tooku yàlla yaa ngi ko yaa ngi yaaxa deram e be moolu ñambondi la yaa ngi tax nit ñi di ko xeeb e moom nga koy kan mooy wax ak téléphone kii ba kan mooy nombre kii ba kan mooy nataalam sa ko kay mobile lol set ka ko wala nga koy ngay set mobile bi ko set mo ngay bolé mu ney yoy yep ayib la dafa lay tam sa cakole nga nan ko yow caga nga man len en caractère olu malak man len en quartier olu malak diw kuma do ci dara dala mu amna yenn wax yo amna jege na gemi yoy bi ko kana mu solo ngay mu ne bu len ayib lo jigi afana kana o fifa lol mom tammi bu mu la def lu mel man len en songru quartier ah, menu malak eh, olu malak diw ebe tan ebe ko ngay ayib lo sa jëkke kër alkanaw te ñoo mu ne yéen tam bu leen def loolu wala tattaxidu alkanaw mutawassit mu ne bu leen jàppawante nag ayaati la ala la ñu ku maanaam aya yàlla yi mooy mooy sëy bi futuwa ala la ayo la mu ne ndax sëy bi nii kawtef yàlla la ayaati la ala la kaw ku la mu ne bokk na ci kawtef yàlla yi de mu ne bu leen ko def caaxaane kaay mu ne sëy du caaxaane kaay mu ne sëy dafa orma futu mu ne fut eh, du yëfu caaxaan Eh, lorante bay mo yabe la fenam ndax doomu adama yeb ñoko soxla wa qur'an fi mina ba ci mu ne ngeen bay xel bu baaxa ba ne ma dala ala la ci ngeenal yi nga xamantene mom la yalla def alaykum alaykum sen kaw futum halal nema baal mu ne euh, seede ngënal la de bu yàlla def de mu fi kenn desuɗomo nema baal mu ne pour am jabar ju baa loolu ngënal bu baax la de ke kenn desuɗomo nema baal pour am jëkkër bu baa loolu ngënal bu bëri la de amin bi tan kenn desor ak tamit am goro yu baax amin din kenn desor ak tamit am doom yu baax min ɓe kosoɗoen futuwa yëpp si sey bu rafet lañ ko de mun kon na ngeen xalaat loolu oma naal si sama mira mu ne waaye ak tamit ngeen di xalaat dara dala alay nañ gin li mu wàcce seen kaw aleykum atubaka yéen kaw si seen kaw yàlla li mu wàcce seen kaw waaw li ko jëlee si téere yi. ani yàlla yéen ko ano fana ka. a ne ngeen tamit téere bi de. a doole de lii yëpp si biir téere bi la nekk. wala xikma ani xikma loon de. ak tamit ngeen jàng xam-xamu xikma. ala hadis woon diinoo kala. mooy ngeen jàng hadis ak diine bi. ya indi kon ala ali ali amari. yàlla mu ngi leen di digal waar. lii lii wax nii yëpp loola lañ yàlla waar de. ñoom comme wàllu lii ñu wax fii yëpp. ala wala faale. loola lañ yàlla wax. wa taqullah fi la. na ngeen ragal yàlla. waaw ngeen xam ne anna allah ko ala ne yàlla de de kulli shay'in sama fere mbir bu ne alima yàlla xam na ko sama fere tasana ko mu ne ñaar ak fanweer ak benn wa iza talaqtum an ni naa bee musolu bula léegi su ngeen fa jigéen yi fa balagna bila musolu futara ñoom ñu aga ajalahu nay la waaroo maanaam seen waxtu bi ba mu jeexee. ñu yemu soobu la. soo fasee jigéen. dana la aadoo ban. balaa aada bi di jeex. isaamuroon. mun nga koo delloo de. bala aadoo ban. waaye soo aada bi jeexee. iman naamuroon. nangoo koo delloo. fo aada koola. ba après aada bi. koola fida. nga ne da nga ko bugaat. ayoo jiita. mu ne bi wàcca. moo la la koo kan. ci mbir nit la. baara muso. maanaam eh, eh, eh, càmmiñam. ah di kewal. daf ko jox góor. coyaabu la. ma góor gi bàyyi ko. coyaabu la. bi mu ko fasee. fo fo aadoo ban. ba aada bi jiyee. aman naa ñu amurundi. nangu koo delloo. aada koolaa la. gannaaw aada bi. ala fi daa la. mu bugaat ko. bidon kan faat. Ah, goro gi mer. ay ñu bula jànni. mu ne kii fii la ko bàyyi. dalil kan. amul benn dalil. moolu yaa diyaamu. nit ñi wax ak moom. fo aadoo ban. fo aada bi jiyee. amaa amurundi. nangu koo delloo. taa ka ala fi doon. léegi mu ne daf ko bugaat. taa dii laa la dama ko ko jox. mbaa dii la doon dama koy jox keneen. muso bi mbele fee. yaa te jigéen boobu ki si ki mu jogee kooku la mu dinaa la dinaa te la daan moom kum ko bugg a jox. accam o za ta lakum nisa na le musol bula mu ne su ngeen fasee jigéen yi balag na neefu da ñu aga de ajal xone la wado dama seen waxtu si mujjantal seen waxtu ma kala bun ya sare al muzani ay jira wala ko kan ne ne fu da la ado da mu ne suñu agee si aada bi fum fum em Eh, lafira murala ñu buga delluwante falata ajluhunna alkana kumande kanaa bala mu ne bu leen def baare seen diggante ay yan ki xana ko bula musotina futu la nekk ki ñu fase ni na du dem sey azwajahunna yi mooy seen jëkkër yi ñu yi leen fase woon men ya bula ki nga xamante ne moo ko wàcc ñi lafira muso mu la mu ne soo buggee delloo jigéen bi naa be aadoo ko su nekkee si aada ma kan ya muron mu ne wax rek delloo na ko ye seedola ka nga ut ay seede ɓane aɗo ban waaye su aada bi jeexee fo futuo sido kutak foog foog ñu takkaat sëy bi de futu naaflu kutak ñu joxaat beneen can olan di fena mu ne loolu mooy différence ɓane aɗo ban mu su aada bi jeexee la wacce ah, du ma la ko joxaat ega tarada ne fulo duñata mu ne ñoom ñaara suñ gërëmante bay naxoy teema c'est maanaam suñ amee gërëmante diggante xel ak lu rafet an ɓe ñoo sammanoɗa sen gisene ñun ñaar dinañ mun a yowbo laro kete feele gannaaw biñ fasewante eh, loolu ñowloodu e ɓe ñowloodu laa ɗo kene xam naa fu suma jëkkër toll na fu mu da buñ dugal beneen mer bu bees nta nta nta murun laji naan ko duñ ko fa delloo ndefutoo si tukura duñ takaat beneen sëy loolu fanaa mu ne buñ jox la jabar sungudo maanaam jànqa omo soo la futoo ban sëy ñu ne mu ko takkaat de fo ne a fan fodondilla mu takka mu dem sëy ji mu ne mu leen futo si def la ntew jam mu ne day ñaar takk jabar sëy di ko def ndeer kuroota laala ne moo fula duma duma seddale guru si mm. diggante mag ñaar doolu yaa die kara la naa man tuuno de diw lañ ko jox su fekkente ne eh, desut foofu kaa bi loo di ko def mu ne suñu giir bi daal duñ ko duñ ko takkal keneen ay sabar eh, mu ne muñ leen loolu fanaa dëjee am na ñeneen ñoo xam ne sunkuro konomaara jigéen bi dafa ëmb bi laa i kaa fan de futo si di ko def ñu ne ko duñ ko ko ren. mu ne loolu du set. xaraamoo ko nag xaraaloo. mu ne tey de araam de bu mu bu mu tax ah, xalaal bi génn ko na denta sax ku ko. ne wala ne a nafila futu. su kooku moo ko. a ala fila ñoo la. te bëggante nañ. ala yi di ñoo joxante leen. jànni di fula ñam. balaa beneen ñaareel doom bi di am. ka ko même maa kono ma. surtout koo xamante ne biiralu. wala fita la. kooku bugg ko. a fo ko yéen naa kono ma. naan ko na kii dañ ko. ngaa na. duñ ko takka. abit la futu bali yaa mu ne su boobaa de. wala kawlu te ñàkk see wala du jur. wala waa ndi kaabi laa futu. wala yeneen eh, eh, eh, bi. bitan de sabari. mu ne bitan koroy nañ muñ. mu ne bu leen dee bañ loolu. laalaka ma jëlaat mu ne loolu ngeen di gis ne. soo agri kàlla kawan. mu ne ah, ñu ngi waar ci loolu. loolu loolu la la yàlla waar. man man alaka moo la kawan. yàlla mu ngay waar nit ci loolu. kaana nekk na koo xamante ne nekk na. ñu ngi ko waatoon ne si mool kon. si si yéen jullit yi. yoo mën a ba laal. koo xam ne mu ngi gëm. billahi alala. mu ngi gëm yàlla. wala yomal akane ala kiyama mu ngi gëm yomal kiyama. même ba laal ala ne laa kiyama. koo xam ne mu ngi gëm yàlla ak yomal kiyama. alaka wala kawan ko ku la yàlla di waar. waaleykum ala fa mooy lii lépp lu leen wax nii. ajuka wala senaara. loolu de moo gën a set de. la ko atole. lii moo moo moo gën a set si yéen. waa waa wala senaara. te moo gën a jekk si yéen. min la fira ñoo la. ñëpp ñoo xamante dañ bugante. Aliou di ñoo na leen joxalante. waato me la fira ñoo la. time buñ bugante. voilà coow waato. na ngeen ko def si waxtu boobu. coow na musoo denjoro. góor gi ak jigéen bi dañ am dañ danjoroos de. coow la fira musoo. góor gi mu ngi bugg jigéen bi. musoo la fira. góor gi mu ngi bugg góor jigéen bi mu ngi bugg góor gi. alamal buloo kandi. te gaawantu si seen loxo. aleefu aleefu ngeen gaawantu takk sey bi. ñoom de seen tànk bi mun na la na raw de. gànnaar ñoo ko maal ko waaw mun nañoo de. balaa yéen de fekk na noo la ñu. ñoom duñ mun a rëccante de. malute malute. dootuñ dootuñ ruusati. Eh, alfaayaate. mu ne am amatuñ. alaafin na musola ji. moom de gis na kim bu. o o fana alaafin daal. kooku tamit bugg na ko. bi doon kàkkal moytu. mu ne mu ne goro yi bu leen dee lor nit yi. bi doon ñooñu ne xorma la. mu ne saa goro bi de war na la orma. tamoo ɗum ñoomin ka kulon kaja karafulal mune gaalu ñoomin kay tami si ñaari boori lañ ko futuo ɓe karafulal mune la ɗitan ɗo ñane formal mune sa goro bi daf wara eh, respecté eh, fanama ñanato ko lorde nde sunkaro mune si koor lañ ne muso ni kelo fota ñoo jigéen bi a góor bi ñu ka fo ko fone sunkar salo ko hana eh, weeru koor bi jee mbettile kandi kon te ñu ngi nekk si noor ka a sama bota naan hana nawaat bi jee fone ko karkira hana ñoom ñaa ñu ngay gisante ñu ngay buggante mu ne loolu wóorul aman ah, koy mu ne loolu wóorut mm-hmm. loolu wóorut eh, masakoon jamono mu ne surtout jamono bi a ah, yàlla dañoo bon waaw ah, ñu dañuy wax ne xam nga ñoom ñaar ñu ngi nekk mu ne julliti duñ dee nekkoo de ta fut wala si dee dañ dee takk say teel biriñu yéenen fois daal bi mu waxee si gémmiñam de bëgg naa kaalafira ñen ne bëgg naa diw koo fanaa kaalafira kooku tamit ñu ne bëgg naa li ñaa kaasi kaasi yéen ngeen ñëw du mooyu du mooyu eh, eh, ñu nekkee noonu ibi bi naa ñuy dem di ñëw be dunne dugg di génn aman koy mu ne loolu wóorul di alee di ñoor joxenta leen zaliku na alee di ñoor mu ne su ngeen leen joxee e to men lafita ñoola ñoom ñaar ñuy buggante e men de ñaaɓe ñoola ñu ngi ñu ngi màgg ñu ngi gisante aji kalako wala senata loolu moo gën a set ci wa ati har wala senata te loolu moo gën a jekk tamit wallahu ala yalla de yàlla may kuuloon yàlla a xam na dara de ay kuuloon yàlla xam na waandu adulo te yéen ñii laatalo al moola loolu xam leen ko de li yàlla xam xam leen ko lu ko waxee defee leen ko noonu ala ala sariya fele nga mu ngi nii ala karam fele ngi jàng mu ngi nii ala londoo fele xam-xam baa ngi nii ala soobeya fele lii de mooy dëggal alquran mu ne alquran mu ngi nii daanaka mu ne benn ñaan de. mu soxla foofu mën leen moom saa su ne loolu lay wax soosee. baax la suba nañ loolu lay wax nañu olof yi ak ñi dégg olof. kay kay a ak ñi dégg olof yëpp. nañ jàng. ñu jàngalante. ñu jàng. ñu jàng alquran bi. ñu xam tekki bi. ñu jàng fiqh ñu jàng suñu téere diine. mu ne kilifa yi njëkk yi eh, jàng eh, bind bu bari lañ. su fekkente ne téere bu bees moom mënuñu ko bind. ah suñu téere yi màgget ni day buñ buñ lott pour jàng yooyu de. mu ne léegi. alfa alfa fuloo mel ni karam mu ne kilifa yu njëkk yi nga xam ne ñoo mun jàng. otumoo konko be kee. boobu de xiif mu ngi am. kolaa be kee. Eh, jafe-jafe mu ngi am. kayit de boobu kayit amut. machine maasa. machine amut. lampe de kee. lampe amut. kàddoo be kee. Eh, tàng mu ngi am. doo ko be kee. liggéey mu ngi am. yow bee kee. loolu yëpp def nañ. yéen bee kalan. lii yëpp jàng nañ. yaa bee sax lii yëpp bind nañ ko. Maodo ñoom la sax waalo. ñoom Maodo Malick. seen Touba ñoom. ñoom Serigne Touba. otumoo kolaa be kee nag. boobu jafe-jafe mu ngi am. kan diyaada kee. tey tàng amut. dibi de kee. amul amul kere amul benn xiir ci daa boole bee safere téere bind nañ ebe saxare ñu ngi sax ñaa be senaare ñu ngi e, leer karandinoo dorom jàngale rek alankana kor wala bu ñu lottu loolu de nañu la be benn laaj ah, ñii ñëpp dinañ daje ak ñoom alaxira alinga kada nañ jéem oustaz afan oustaz afan man ne nga kayalam soose olof misil mi majlis so misil eh, majlis muslim yëpp nañ jàng karamba jàng bu baax rabaraka jërëgeen jëf rafa bakaw sa jaaraam wax lañ bakaw sa jaaraam wax bakaw sa jërëjëf da baraka ñëpp jërëgeen jëf ko ano baraka amiin amiin wala ñu mooy fi jif bi wala